asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi ñu ngi lay ziar di la nuyu di la remercier également ci dal bi nga xam ne dalal nga ñu ko fii ci sa kër gi nekk fii ci Nord Foire ñu ngi la ciy remercier bu baax <clears throat> ndax xam na ne dëgg yàlla yonent bi say waxtu xat na say heure xat na ak euh, emploi bi nga amee charge bi nga amee ñun romb ci buntu kër gi gis naa leen ñu ngi ciy lu baax a baax a baax a baax mm-hmm. rangloo woo ñu téewoo ñu ci buntu kër gi itam kon ñu ngi lay remercier ci dal gi ñu dal fi sa kër gi nekk fii ci Nord Foire xamee na la nag fële ca cité fajar laataa ñu lay xame ngay toxo di jëm fële ca cité alin Sow ci sa kër gu nekk foofu nga nekk fa di fa recevoir nit ñi waaye tey dañoo ubbil say buntu kër fii fii ci Nord Foire dañoo ñëwoon nag pour waxtaan ci benn thème waaye laata loolu dinañ la bàyyi nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan bisimilah. alhamdulilah. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. aouzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyaaka naabudu wa iyaaka nastain ihdina siraat almustaqim siraat alladina anamta alayhim xayri almaxdubi alayhim wala dalin rabbi israx li sadri wa yasir li amri wahlul xoqdatan min lisaani yaqoo qawli yaa himmata sayxi yuxdirna bi hada almaxdari wal taati fii bi nasratati lana bi safar mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu lay fay di la wax marhaban bikum ahlan wa salaam euh, di am contentement bu bu rëy ci xalaat yi nga xam ne am ngeen ko pour war ñëw waxtaan si ko ak euh, man ci laaj sama gis-gis ak sama xalaat euh, kontaan naa ci bu baax ndax Sénégal fi mu toll réew la moo xam ne ñun rek ñun ñooy ko war a defar waruñu xaar benn étranger defar ko waruñoo xaar kenn ku ko xam ne moo koy defar te xam-xam bi ñu ci yàlla dénk expérience bi ñu yàlla dénk ci suñu jaar-jaar ak suñu dund permettre nañu ak li ñu jote jàng ci àddina ak tukki yu ñu mës a def permettre nañu ñu mën a am benn tous bu ñu mën a teg def ko ci Sénégal ak situation yi mu toll nga xam ne ku nekk su nekkee ci ruq bi mu nekk da ci def dara dana mën a am lu mu feeñ ci sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal ci dund. moo tax ma am contentement bu rëy ci dalal leen. di leen déglu tamit ci seen ay question ba xam incha allah. ni ñuy doxalee mbir yi. waaw ni koy doxalee mooy itam xam nga xamee nan la ci wàllum ñaan. waaye xamee na la itam ci wàllum business. Mm-hmm. <laughs> waaw naa ko tuddee business. Mm-hmm. ndax euh, expert nga. Mm-hmm. ci wàllum business. Mhm. business plan. Mhm. ci wàllum nit ki nan lay def ba taxawal société mhm. ci wàllum entrepreneuriat. investissement. yooyu yëpp xamee nan na ko ci. ci si yenn waxtaan dañuy faral di for. ngay wax ñi nga jot a formé. ñi nga xam ne ay 500 francs lañ déparé. ñi ay mille francs. ñii ay 300000. ñii ay 1 million lañ déparé. ñi ay somme yi nga xam ne ay somme yu modeste lay doon. waaye laata boobu. dama bëgg ñu wax ci wàllum richesse. Mhm. maanaam alal. Mhm. alalu doomu adama mhm. alal lan moo koy lan moo koy may nit ki nit ki nan lay def ba ba ba am alal. waaw loolu daal laa lay jëkk posé ci question. muy baatin bi. waaye itam muy zahir bi. waaye baatin bi laa bëgg nga jiitu ci ak man. nit ki nan lay def ba am alal ci baatin. waaw. Euh, alhamdulilah nit ki nu muy def pour am alal ci baatin dafa bari ay. pàcc dafa bëri ay buntu dafa bëri ay secret wàllu baatin dafa nekk loo xam ni c'est quelque chose qui est abstrait wàllu zahir bi mooy c'est quelque chose qui est concret am am ci zahir mooy nit koo xam ne dafa jàng métier di liggéey di yëngatu di yaxantu ba am dara loolu mooy am amu zahir su dee am amu baatin nag yàlla daf lay dénk ay secret secret yi la yàlla di dénk nga di ko jëfandikoo secret yooyu dina la may alal am na ci secret yoo xam ne dina la may alal am na ci yoo xam ne daf lay may xam-xam am na ci secret yoo xam ne daf lay protéger am na ci secret yoo xam ne euh, daf lay dimbale si sa diggante ak nit ñi sa relation ak ñoom di yomb donc secret bi nga xam ne mooy maye mooy maye alal loolu dafa bëri li nga xam ne moom mooy moom mooy ci dimbale doomu aadama bi ndax man mii di wax ak yow euh, bari na ci yoo xam ne dama ko jëfandikoo euh, ba gis ne lii lu wér la mooy lu mel ni istixfaar def naa ci benn waxtaan euh, mooy astaxfirullah nga xam ne nit ñi mu ngi leen jege trop waaye nekk secret boo xam ne mu mën a may nit xaalis may bu gaaw am na tamit secret boo xam ne dana may nit xaalis mooy muy ñu wax yàlla tiif mais yàlla tiifu am na noo koy liggéeyee pour xaalis am na noo koy liggéey pour xeex bu fekkee nga am sa noon bu lay xeex wala nga nekk ci situation bu difficile nekk ci service di liggéey bu boobaa doo ko liggéey yaa latif al latif nga koy liggéey mais am na ci lim booy liggéey al latif pour mën a pour mën a xam naka ngay mën a jëfandikoo nooy protéger sa bopp ak nooy aaree sa bopp ak nooy def ba nit ki du la yàqal yooyu nag man maa ko man maa ko def man maa ko wax mais yow li ma laaj mooy luy maye xaalis mhm. luy maye xaalis bokk na ci istixfaar bi ma wax noonu nga jàng ko 1947 fois muy adadu nafs bi nga xam ne mooy adadu istixfaar mais dafa am heure buñ koy sikkar heure bi bokk na ci nga sikkar ko ci booru entre 4 heures du matin wala balaa ñuy salaatu avant ñuy wax asalaatu xayrun mina nawmi rek war ngaa mën a pare fekk pare nga istixfaar bi nga xam ne moom nga sikkar su fekkee ne nag euh, lu mel ni salaatu faatiha am na ci lim boo xam ne dafay maye xaalis nga xam ne ci wàllu baatin mel ni faatihatul kitaab lu mel ni faatihatul kitaab euh, day may am na ci secret lim boo xam ne day maye xaalis lu mel ni euh, lu mel ni fatihatul kitaab de am na ci lim boo xam ne day maye xaalis lu mel ni istixfaar boobu ma la wax noonu foofu adab nafs bu ñu bari xam nañ ko mais secret bi mooy heure bi nga koy liggéey ak niya bi may yéene bi daf ci am solo so heure boobu nga liggéey ko en temps nga yéene yéene ne yàlla maa ngi lay ñaan euh, pour nga may ma nangam ci ci barke sa tur wi nga xam ne mooy istixfaar ndax liy xañee wër liy xañee wërsëg bokk na ci ay bàkkaar yu bari day tax sa wërsëg day day am gàllankoor istixfaar boobu day fay effacer sa bàkkaar yi istixfaar dafa am doole dafa am doole boo gisee Cheikh na Ahmada Tidiane Sëriñ radiyallahu anhu yàlla yonent saa salaam jox ko tariqa Tidiane njëkkee istixfaar loolu rek nit ñi amoon xel muus rek war nañoo xam ne istixfaar boobu yéen yonent Yàlla moom saa sallam jox jox si am amati ansari mu téye ci ak addina bi jox leen tariqatu tijaan ya ñu téye téyeku di ko zikkar istixfaar boobu war na nañoo xam ne même bu leen kenn waxul kenn dara war naa war nañoo xam ne istixfaar boobu am na mbóot donc seen amati ansari yàlla jox na ko secret istix yéen jox na ko secret istixfaar mu di ko mu di ko liggéey boole ko tariqatu tijaan xam nga istixfaar mooy chose mbir moo xam ne mën naa agir ci la ci la la passé est-ce que ma la wax. istixfaar rek moo mun agir ci le passé xam nga nit ki su defee dara mën na def dara ñu bindal ko bàkkaar léegi comme masalan nga bi def bàkkaar tey suba ñu xam nga bàkkaar passé na defal nga ko démb. waaw léegi bàkkaar bi mu ngi ci sa loos mais pour nga revenir ci démb. pour mën ci agir istixfaar rek nga mën a jëfandikoo mooy nga wax astaxfirullah yàlla baal la bàkkaar bi nga defoon démb mu effacé ko fa mu ko bindoon fekk passé woon moo lay wan puissance su istixfaar loolu nag soo ko orienté ci wàllu wërsëg lépp lu kale lu kale ci wàllu wërsëg daf koy maye soo buggee nag am temps nekk zikkarkat quinze mille fois nga ko war a zikkar par jour kooku moom dangay buub waxuma waxuma am xaalis mais da ngay dangay da ngay yow dem ba yow da ngay naagu boo nekkul jàmm buy sant yàlla soo nekkul jàmm buy sant yàlla mën ngaa dem ba bew ci li lay alal ji di ñëwalee xaalis bi ni muy ñëwee ci yow mais lu li ci gën mooy mu fekk la nga yëngatu ci dara mais boo def boo demoon ci àllab kerte ndeng mooy àllab kerte ndeng mooy benn espace libre boo xam ne personne nekku fa benn ressource humaine nekku fa lenn luy maye nit xaalis néew fa luy sabab sa am am ne ko fa nga sikkar ko fa foofu ngay xamee euh, secret bi liggéey bi muy doole bi muy am ak ak réalité bi mu am moo tax soo koy sikkar quinze mille fois sala istighfar kooku secret la bu gaaw gaaw gaaw gaaw maye xaalis su fekkee ne mën nga ko sikkar par jour istighfar istighfar am na am na ñuy dégg te xamul lu istighfar mooy astaghfirullah istighfar mooy astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah quinze quinze mille fois par jour kooku nag yor yor bu moo gën maanaa entre dix neuf heures ba midi boo déparé première paire bi doo taxaw ba quinze mille jëpp ba mën koo dispatching ci journée déedéet def ko à fois ci benn jotaay une bonne fois pour tout quoi waaw benn yoon ci jotaay bi ci benn istifaar bëriwul astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mën ko cent man si kar naa latif 7 16641 7 fois par jour daan naa ko liggéey 16641 le titre moo tolloog adatu am xawiyun am xawiyun moo tolloog euh, am xawiyun moo tolloog 16641 zafta wéex moo tolloog 116684 47 comme 87 su ma juumul mooy 7 fois 60 16641 xam nga boobu si kar naa ko par par jour pris de temps temps bu yàgg. loolu sa loolu il faut nga nekk tuddkat yàlla dëgg-dëgg pour nga mën a gàppari ko toog mhm. liggéey ko loolu dafa yàgg dafa jël temps dafa jël au moins minimum dana jël ay 3 heures de temps 4 heures de temps par jour mhm. mais loolu conseiller yu ma ko jeunesse bi léegi parce que nit ñi léegi temps bi dafa pragmatique nit ñi dañoo yàkkamti temps temps bi dafa précise nit ñi yëpp bëgg lu gaaw et puis dañu bëgg secret yu leer secret yu secret yu wér mhm. te am na ñoo xam ne benn bis mës naa ci waxtaan ak benn Abdou Rahman muy wax ne Euh, ñu bëri ci ñu wirde euh, mais jubluwuñ ci jaamu yàlla dañ ci jublu am dara ma ne ñooñu ñooy jaam ma ne ko ñooñu ñooy jaamu yàlla yi pire mënuma ci naka ma ne ko parce que une pierre deux coups lay nekk mooy jaamu nga yàlla ñaan nga yàlla parce que ku toog tëju yor sa kurus di tudd yàlla pour am xaalis xam nga ne xaalis bi yàlla rek ko mën a maye donc jox nga yàlla reconnaissance bu kawe bi ci topp mooy. un demandeur nga yow ci yàlla parce que yàlla moo ne adduhooni astajib lakum fee mu ne uskurullaha sikran kasiran tudd leen yàlla tudd tudd leen tudd tudd gu bari fu yàlla wax ci alquran tudd leen ko rek dafay dégg da ngay dégg mu ne tudd gu tudd gu na nekk tudd gu bari mm-hmm. ma ne wax ki toog di jaamu yàlla pour am xaalis def na ñaari jotaay ci benn jotaay bi mm-hmm. jotaay bi am na ñaari maanaa yoo xam ne ñàkk dégg moo koy waral mm-hmm. mooy nga nga yaa ngi jàmm yàlla te li ngay def xam nga de su doon sa pexe la doo tudd yàlla keneen ngay tudd su doon sa pexeem baay la sa baay ngay tudd su doon sa pexeem xarit la sa xarit ngay tudd mais il suffit nga jël tur yàlla yi di ko utiliser cela veut dire que reconnaissance entre yow ak yàlla am na xam nga ne li ngay ñaan yàllaa xam nga ne jaam nga ba lottu nga yaa ngi tudd yàlla ci turam yi pour mu mel benn deuxième bi ci topp mooy yaa ngi ñaan yàlla ci turam yi yaa ngi wane ne yàlla mooy maye nga koy ñaan donc ñaari affaire la donc moo tax amul amul sens maanaam kii interdit ñaari sens c'est un bon bon sens la maanaam système la boo xam ne moo tax tuddkati yàlla yi foo leen fekk dañuy am ñaari mbir dañuy am daraja dañuy kawe dañuy ay nekk nit yàlla dañuy sell yàlla daf leen bëgg nit ñi bëgg leen en même temps dañuy am wërsëg parce que une pierre deux coups lay nekk waa am na kuy lakke mhm. euh, c'est-à-dire maanaam tuddin wi mhm. waaw genre commentaire mais dama koy dama ko jàpp comme question. Mhm. daf na très intéressant mhm. mu ne la manière de prier le Seigneur. Mhm. pour les musulmans afin d'accroître ses gains. et bénéfices dans la vie quotidienne. c'est-à-dire mu ne merci mu ne mi ngi lay jërëjëfal bu baax a baax a baax a baax. man ci dama ciy jàngee beneen question ci ci commentaire am bi. maanaam la manière bi ñuy tuddee yàlla. nee nga istixfaar. joxe nga fa quinze 15000 fois chaque jour dafay joxe alal. waaye ban manière la ñuy jàngee naka la ñuy jàngee istixfaar. ci sellal geeg toogin weeg yu yëpp. mooy mën a xam. waaw loolu li ñu koy jàngee mooy d'abord da ngay jàpp ba set mm-hmm. nga yéene yéene bu sell. Mm-hmm. maanaam yéene ci ne mm-hmm. maa ngi koy fas yéene lii def ko mu nekk jaamu yàlla. yaa ngi dégg ak ñaan yàlla mi nga xam ne moom rek mooy maye très important ñoo xam ne lu waaye am yàlla moo la ko may lu ñaay waay ñàkk yàlla moo la ko xaj yaa ngi dégg parce que la hawla wala quwwata illa billah kenn mu amul kattanu may kenn dara waaye kenn amul kàttanu xañ kenn dara ku dul yàlla sabab bi nag mooy nit ñi nga xam ne ci lañ may yéeg xañ ñi feeñu feeñuwaay yi mën na nekk ci yi fi mën na nekk tamit yow yàlla direct rek yàlla mën naa am am na kàttan bu waaye soo koy jàng dangay jàpp ba set nga éenee toog jublu ñaari rakka ñaari rakka yi loo ci julli loo ci julli baax na fatiha baax na nga jàng yaay xawlu saaru la neex nga teg ko ci léegi soo paree nga toog nga jublu penku toog toogaay bu teggiinu mooy nga toog toog comme ko toog ci kanamu kilifa gi gër gën a fonk boobu manière te toogaay taalibe yi am na xam nañ ko nga jàng istixfaar astaxfirullah astaxfirullah astaxfirullah astaxfirullah astaxfirullah quinze mille fois mais seize cent euh, kii bi moo gën a moo gën a moo gën a moo gën a noppale ci moment bii nii mooy mille neuf cent quarante 1940 man jox naa ko kenn koo xam ne maa ko cotisé dimbale ko wax ko forcé ko ne ko dee ko def balaa ngaa tëdd ak balaa ñuy salaatu foo jaar di nga nekk chef d'entreprise maanaam da nga am alal gérer alal gérer loo xam ne yaa koy moom. 1947 1947 bu ko bàyyi bu ko sàgganee. mu jàpp ko itteewoo ko forcé ko téye ko. Mm-hmm. ba yàlla dogal tey alhamdulilah rabbil alamin am na këram. Mm-hmm. am na société am mm-hmm. na xaalis. parce que kooku il faut tamit nga nangoo jaamu yàlla te ngay ñaan yàlla hmm? kooku secret la ci bi may xaalis waxoon naa ne am na benn secret ci salaatu fatiha mooy juróom fukki salaatu fatiha soo demee addatu addatu boobu nga xool noonu hmm. mooy juróom fukki salaatu fatiha mooy cinquante salaatu fatiha hmm. soo demee ci wasifa nga koy fekk ca ca ca ca tariqa tijaan secret la fa moo tax ñu dugal ko ci wasifa te boo xoolee wasifa euh, def ko ci mbooloo moo gën def ko yow soo xoolee laazim kenn du ko def ci mbooloo yoo kenn yaa koy def mhm. donc am na sew-sew yu ne foofu noonu mhm. soo xoolee wasifa salaatul faatiha bi mhm. kenn du ko watee dara maanaam jawatu kamal mën ko watee salaatul faatiha mais salaatul faatiha ci wasifa kenn du ko watee dara donc foofu secret salaatul faatiha boobu dafa garaaw dafa am puissance mooy salaatul faatiha bi nga xam ne tey ku ko sikkar juróom fukki yoon di nga am xaalis ci tàng-tàng bi fi nga toog fi nga toog sikkar ko balaa nga faa jógee situation bi tax nga sikkar ko di nga ko comme tey supposons tey ngay dugg ci benn néegu kilifa néegu kilifa boo xam ne da nga yaakaar ci moom pour mu defal la waaye nag bu leen ko jëfandikoo wax naa <laughs> eh, <laughs> waaw wax rek yow kay yow kay may may. yaa ma laaj yaa ma laaj vraiment am na yoo xam ne. <laughs> may ñu ko rek. ah yaakaar naa ne comme comme bëgg na génn moom. Ah. génnee ko rek nit ñi nit ñi. waaw mais xam nga tamit dafa direct am ñoo xam ne. Euh, bu ñu yoree fetal. ah balaa ñuy xam ndax fetal bi baax nag baaxul dañuy fa essayer ko. dañuy tiire ba pare. waaw dañuy tiire pour essayer fetal bi baax na <laughs> mën nga tiire gaañ gaañ ku nekk. moo tax man souvent damay bëgg. Ah. ñu respecté. li may wax et puis ñu wax ñu respecté mm-hmm. li ma leen di wax. waaw xam nga li may wax yaakaar naa ba tey yaa ngi bëgg génn ci la yaa ngi doon mooy tey supposons tey nga am soxla tey nga dem bëgg ci service boo xam ne nga bëgg ñu jël la wala nga nekk ci situation bu xat boo xam ne xaalis moo koy réglé boo xam ne daar daar nga soxla. boobu da ngay sikkar salaatu cinquante fois salaatu fatiha cinquante fois comme neex mën nga ko essayé tey ci guddi sax wala sax su fekkee ak situation jotaay bii nii yàgg na ba nga xam ne jeexul. mën nga ko mën nga ko essayé. Mhm. après balaa jotaay bi jeex na mën nga dugg confirmé wala nga dugg weddi. comprendre nga ci situation bu taxaw nag laa wax waxuma loo xam ne ay essayage comme mari foro nii comme ça. ndax yàlla xam na situation bu taxaw comme ngànt ku ne xam na boo amee ngànt soo ko amee mu nekk dëgg da nga xam soo ko amee fekk yaa ko sabab di nga ko xam. am nga situation bu critique bu taxaw boo xam ne xam nga ne xel li mën na la yàqal nelaw. si karal salaatu faate juróom fukki yoon rek nga xool. si situation boobu noonu nga xool ci biir rek ci kati xaalis nag laa wax. da nga gis situation bi dana régler léegi. donc loolu mën naa ko baaxee. askanu Sénégal. bokk na ci li nga xam ne day day tax sa alal du yàqu sa alal du yàqu ba tey ba tey ci wàllum istixfaar wala wala wala yaa ngi ci baat beneen baati noon istixfaar laa lay wax bokk na tey ci li tax sa alal du yàqu xam nga tey yow soo bëree ay bakkaar yàlla dafay teg nattu pour am na ñoo xam ne seen bakkaar yàlla ci ay seen alal la ñu koy fay la leen di seen bakkaar yi suñ tuubut hmm? yàlla day yàq seen alal pour baaxal leen mu nekk seen mu nekk seen njot ci bàkkaar bi léegi nag soo bëree di tuub tuub sa alal du yàqu parce que xanaa xaw ma dàll bu dagg sax bàkkaar bu ñu la teggil la làmp bu fay làmp bu bu brûlé bàkkaar la bu la bu la yàlla naroon a bu la yàlla naroon a euh, teg ci sa natt ci sa bopp la. mbugalee la ko mu mu mu def ko euh, euh, mbugal. waaw ndax damay dégg mag ñi naan bu bu bu benn xar dee ci kër wala nag ñu ne na yóbbu suñu xay. mu ngoog. parce que loolu si sa alal la bokk moo tax sooy bëri di def istixfaar sa alal du yàqu doo am ay perte boo gisee nga am société mu am mu am durée yàgg loolu moom côté société yi ak mooy am alal alal bi doo ko ñàkk loolu dinañ ko wax côté zahir. waaw côté zahir bi. côté zahir bi nga xam ne mooy wàllu entre entre euh, entrepreneuriat bi entrepreneuriat bi. investissement yi investissement yi ñi nga xam ne dañuy entreprendre nga xam ne ñooñu. dañuy nekk ñu am ay cinquante mille. Mhm. bëgg a nekk millionnaire. Mhm. waaye ñu des ci baatin bi ba tey. waaw mais baatin bi tamit ndax ndax ndax amul man li ma ci wax doy na. ah déedéet dama dama. mais benn xanaa ko ma tur yàlla xanaa ko ma tur yàlla Cheikh Daara suñu ci waxoon bàyyi na. yàlla waxoon dafa wax mu ne hmm. euh, moom xàmmewul tur yàlla bu bu kawe ndax tur yëpp yàlla la ñuy tudd te yàlla mooy ku kawe ki. waaw waaw waaye xam nga donc wax leen benn ñaari laa jox xam nga ñaari secret ñaari secret yi gën a am doole ci tariqa tijaan. yéen a saa yàlla bi ko yàlla di jox hmm. tariqa tijaan ñaari yooyu la ko yàlla bi ko yàlla yonent yonent si yonent yàlla moom saa bi muy jox Cheikh na Ahmad Tijaan Chérif radiyallaahu anhu tariqa Tijaan salaatu faatiha la ko njëkk a jox astixfaar la ko njëkk a jox ak salaatu faatiha est-ce que mu la xam naa li nga wax après mu soog koo jox laa ilaaha illallaah mm-hmm. donc gis nga loolu soo xamee secret bi ci nekk mm-hmm. nga di ko teewlu di ko zikkër mm-hmm. jamais au plus grand jamais nga wax ni soxla jamais de la vie jamais situation li mu critique critique critique mus ba parce que yàlla mooy solution bi yàlla mooy kii nga xam ne mooy régler situation yi moom mooy kii régler problème yi mhm, mhm. léegi yow sa imaan sa gëm-gëm ak sa dëggu mhm. su jotee jotee tu matee rek yow gi nga secret yi ñu dox wér na soo koy sikkar jamais au plus grand jamais nga taxaw ci buntu kër nit walla ci kanam nit wax ko soxla man am na xale boo xam ne dañoo dañu si sama xale yi dañuy nekk maa ngi suñu amee benn soxla soxla bi critique jafe suñu ne ah soxla bi mu ne ko léegi mu réglé yaa ngi dégg ma ne ko léegi ma xam nga yooyu soo koy téye di ko sikkar di ko sikkar di ko sikkar ba mu nangul la di dem ba yàgg da ngay ruus sax di ko da ngay bàyyi sax léegi affaire bi nature bi di dégager boppam maanaam naturellement ngay dund mas naa dégg ci kenn ci taalibe bàyyi sama xarit la mu ne Imam Hassan Cissé wax na ko ne ko àgg na ci. àgg na ci maqaama foo xam ne lu toq ci xolam bi rek yàlla may ko ko lu mu bëgg rek maanaam yàlla may ko mu na ko ah loolu dëgg la parce que loolu dañ ciy dañ ciy egg te loolu soo demee ba dund ko nga koy xam da ngay dem ba am kersay bëgg da ngay rus ndax soo bëggee rek da ngay bëgg mu am force day am mu da ngay yàlla moo lay jël jël kunam gi jox la ko parce que yow da ngaa jël sa bopp jàgg man loolu je l'ai essayé et réussi sans sans kii waaye maa bi neex ma ci rafet fatis donc du rëy rëy lu du nga nangam nga xam ne nit ñi ba leen di wax da nga leen wax dëgg wax leen li nga xam ne yow danga ko dund da nga xam ne li nga xam ne am na mhm. nga xam ne nit ki tey su ko jëfandikoo yi dina la remercier mhm. su gisul dëgg mu mu meree la mhm. loolu laay wax nga xam ne réalité la dëgg la nga xam ne da ngay sikkar soo amee soxla nga jël sa kurus maa ngi leen di gëñal ci yàlla ku bëgg di am jàmm del tudd yàlla lu bari del zikar del wirda parce que situation yi wirda moo koy réglé xaalis wirda moo koy maye jàmm yàlla moo koy maye da ngay liggéey parce que y a deux mondes yàlla monde visible et le monde invisible gis nga le monde invisible gis nga espace bi mu créé ak réalité yi fa nekk ña fa nekk seen puissance si si ko nit ñi xamoon dootuñu am ittee àddina yii àddina moo lay topp moo lay jàmm dootoo toppatoo yii dañ lay naajeel dañ lay sonal parce que sooy communiquer ak la la le monde réel maa ngi leen di bëggee sax di leen wan ne bii gént naa yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi maa ngi ko gis gisuma moom nag waaye gis naa jëmmi leeram mm-hmm. nga xam ne moo tax si suba maa ngi dégg kuy wax bay wax ci yonent yi ma ne ay boo ko xamoon bu mm-hmm. boo ko boo ko xamul xam nga loolu moom dëgg dëgg sant yàlla la mhm. Mhm. ñu ne ma yonent bi ñëw na mhm. donc fii alhamdulilahi rabbil alamin yàlla may na ma ma gis fi yonent bi loolu xam nga sant yàlla la donc tuddkat yàlla yi laa leen laay dëgëral seen xol bégal leen ci ne ñu ngi ci yoon wi nañ ci tax nañ ci sax ñi tayal ci tudd yàlla di fër-fëri di daw ci àddina di ngër-ngëri nañ xëy liggéey waaye bu ngoon jotee nañ wàññi seen nelaw yi te nañ di liggéey guddi gi maa leen koy laay biir de leen liggéey guddi gi di tudd yàlla guddi gi wàññi nelaw yi gis nga dëgg dëgg góor yàlla dëgg dëgg entre neuf heures huit huit heures wala neuf heures onze heures la war a nelaw dëgg dëgg tuddkat yàlla neuf onze heures la war a nelaw waaye warta nelaw guddi guddi pour tayalkat yi ñoom ñoo koy def guddi pour tayalkat yi la maanaam ñu tayal ñoo moom guddi nga xam ne guddi bëccëg gi mooy mooy ñi nga xam ne euh, àddina rek la ci la ñuy dox mooy pour ñu guddi gi mooy moom moom guddi nga xam ne bëccëg bi yëpp dañ koy jeexal ci yëngatu ci ut àddina guddi gi ñu def ko nelaw ngelaw ba ŋaañ ba bët set loolu loolu nekkut loo xam ne ku bëgg dara doo koy def ku bëgg dara saxal ci àddina bi lu wér da ngay wàññi sa nelaw loo mën da koy def da koy wàññi da ngay wàññi say nelaw lu bëree bëree bëree bëri hmm? ngay nelaw lu mu bon bon ñaari waxtu doy na ci nelaw su bëree ba bëri ah est-ce que est-ce que doo tàmbalee ay ay ñeenti waxtu ay juróomi waxtu ay ñetti waxtu ba ko nangu maanaam maanaam ngay tàmbalee di nelaw. Mhm. yàgg ngay nelaw ñeenti waxtu. Mhm. su yàggee ngay nelaw ñetti waxtu ba ba ngay mën a nelawee ñaari waxtu. Mhm. am na ñoo xam ne bu ñu nelawul guddi gi bëccëg bi boo leen xoolee dañuy ëbbali rek. parce que xamu benn guddi sax suñ ko nelawul dëkk bi yëpp danañ xam ne nelawul ko. nañ ko moytu. gis nga ku bëgg dara. man maa la koy wax seetal le grands euh, les les grands hommes d'État dama nga laaj leen le président Macky Sall dama nga laaj ko. ñaata heure lay nelaw. nga nga laaj les les les ministres nga xam ne ñi nga xam ne dañuy def seen liggéey laa wax ma ñi nga xam ne dañuy fal ñu dem di nonce nelaw ba fajar jot jot seen yoon nekku ci mais ki bëgg am am prent ci àddina nga xam ne ci yàlla nga yëngatu. da ngay wàññi say nelaw su dee ci àddina nga yëngu da ngay wàññi say nelaw. Mhm. obligatoirement parce que àddina bi temps bi ñu yàlla jox dañoo dem ba dañ dafa gàtt mhm. par rapport ak réalisation yi nga xam ne moo ñuy xaar mhm. loolu c'est important ñi tudd yàlla war nañ ko xam ñii liggéey war nañ ko xam ñii jaamu yàlla war nañ ko xam ñii ut xaalis war nañ ko xam parce que xaalis c'est quelque chose boo xam ne quelque chose de secret la dafa bëri ñu laxasu ci xaalis nit ñi dañ ci raxasu jinne yi laxasu ci malaayika yi laxasu ci xaalis parce que vrai secret bi nga xam ne dafa laxasu mbootam kun fa yëkkoon gannaaw boo xamee ne yàlla moo moom jaama ñi moom seen idéologie moom seen esprit yi moo moo leen dajale dajale leen ci secret boo xam ne ñoom ñëpp ñoo dajee ci ne këyit gii ku ko am soo laajee lu tolloog da doolay nangam nga am ko donc ñoom ñooy viré seen secret ci kayitu xaalis ñoom ñooy viré seen secret ci or ñoom ñoo viré seen secret ci jamaa moo tax yooyu soo ko amee da ngay mën a def dara parce que secret doomu aadama yi yàlla moo leen may pouvoir boobu mën nañu jël dara transféré ko transformé ko wala transféré wu ci benn mbir comme supposons tey nga nekk nit koo xam ne da nga gis benn situation bu garaaw bu nar am nga nga nga transféré wu ci situation bi réglé ko dellusiwaat loolu nit yàlla yi dañ koy mën nga xam ne daa am situation boo xam ne waroo bàyyi mu ñaaw da ngay transféré wu ci situation bi rek la ci ko ñëwaat toog. a rafet quoi quoi rafet. dafa war a rafet mhm. des fois mu nekk par esprit. Mhm. mën nga toog wax ak nit ñi lekk ak ñoom ñaan ak ñoom fekk yow génn nga dem nga bu yàgg dem rek la ci situation yu bëri ñëwaat toog jàppaat sama njàmbur te kenn du xam loolu dafay am ba ci moment bii dafay am loolu la ñuy wax tasarufaat am na ñoo xam ne tasaruf lañ dañu def ay tasaruf ci yooyu mën nañ ko ci xam-xam mën nañ ko ci alal mhm. mën nañ ko ci lu bëri donc istixfaar boobu daf lay éggale ci maqaamu boobu daf lay égali ci maqaamu boobu parce ku dem ba set ci bàkkaar te bàkkaar nu mu bëree léegi ku dem ba set ci bàkkaar rek rek yàlla tànn la te su la yàlla tànnee nga nekk waliyam ku nekk waliyam méngoo yàlla méngoo say mbir te puissance bi yàlla am lu ci yàlla daggal nit ki jox ko ko rek da ngay gis dafay dafay dafay nekk lu lu am solo ci moom mhm. moo tax istifaar dénk naa ko nit ñi mhm. dañ koy zikkar pour am xaalis baax na pour am xaalis. waaw léegi nag euh, ñëw nañ ci liy jox nit ki xaalis. nga baaxee ñi lay seetaan nga baaxe leen secret yooyu. léegi lan mooy yàq alal nit ki judd na am alal. wala donn na alal. wala wala wala jël na wérde bi yii nga ko jox. secret yii nga fi joxe jote. mu jël ko ba yàlla may ko alal. lan mooy def nit ki xëy xëy rek alalam na furaas. loolu yu bëri aspect bëri na ay aspect yu koy indi. alal bu fekkee da ko amee woon ci ay sacrifice nga xam ne da nga ko utoon ci ay jinne soo noppee kóllëre gi nga seqoon ak ñoom ñu yóbbu ko. waaw nag na gën a leer. nit ñi comprendre nit parce que dama lay wax dama lay wax fànn yu bari. waaw manque de expérience maanaam nit ki mën na nekk koo xam ne. mën nga yor alal te amuloo expérience. Mm-hmm. pour mën a gérer alal ji. waaw nasalan sa baay bàyyee la fi alal. Mm-hmm. nga donn ko waaw walla nga xëy hmm. ñu fay la benn alal hmm. walla nga xëy yàlla ubbil la sa wërsëg mbir mi di ñëw hmm. léegi soo amulee expérience mën na tax mu dem soo amulee bu amulee gestionnaire bu baax waaw yaa ngi yaa ngi anticipé deux personnalités yi nga doon moo tax pour pour nga kii ñaar dafay xaw a jafe parce que euh, annoncé naa ko sànq expert financier nga également entrepreneur et tout mais dama bëgg ñu yem ba tey ci cadre zaahir bi ci cadre baatin ba ñoo dugg ci loolu. d'accord c'est parce que ñaar ñaar yi nga nekk moom day jafe pour nga. d'accord su fekkee ne nekk koo xam ne alal bi da nga nit ki mën nga am tur yàlla di ko si kam waaw tur wi mën na yàlla defal la ci maanaam roxaaniya tur bi hmm. roxaaniya tur euh, di la liggéeyal da ngay am xaalis mais soo ko tegee mu dem bala ko day yóbbu alal da ngay gis ñoo xam ne dañuy tudd yëpp tur muy neex ñu jékki-jékki teg fa tuuroo ñu jékki-jékki alal jana fur dem mhm. wala am am bana may dem mhm. lu des fois daf koy def loolu dina tax sa alal dem tamit di nga yor tur boo xam ne nuuraani ya la am na ñoo xam ne seen tur zulmaani ya la am ñoo xam ne seen tur yi nuuraani ya la mooy zulmaani ya mooy ñi nga xam ne ci bakkaar la ñuy liggéeyee seen alal lëndëm lëndëm mhm. mooy lu lëndëm nga xam ne bakkaar rek nu mu gën a amee bakkaar nu mu gën a bonee nu mu gën a saltee nga gën a am puissance nga gën a am alal ñooñu zulmaani ya ci la ñuy mooy sacrifice yi nga wax sànq. mooy sacrifice yi ak njaaloo sàcc alal jaamur rey nit. Hmm. ñooñu am na ñuy def loolu parce que boo xoolee léegi fan yi rey yi ni mu bëree. xale yi ñuy sàcc yi ñuy sàcc yëpp lu ko indi. mooy nit ñi dañ koy def parce que dañ leen di xiirtal ci soxla ay cër doomu aadama pour liggéeyal leen ci loo xam ci côté zulmaani ya ci côté boobu lay lay lay dox. loolu mooy waral ñu bëri tey da nga gis ñu am alal ba yàgg alal jékki-jékki yi dem parce que la la muy laaj. soo ko joxut wala la muy laaj soo ko defut bu yàggee day daal di arrêté su dee côté côté nooraanee la dafay laaj ay sarax nooraanee mooy leer nooraanee mooy leer koo xam ne tey da ngay masalan comme istifaar yi ma joxe hmm. nga xam ne dangay dem ba yàlla def la xam nga istifaar ku koy sikka bu yàggee da am nooraanee ilaa boo xam ne ci ilaahiya lay lay aju hmm. maanaam leer ak yàlla ngay am hmm. ci mbindeef yi da ngay am leer ku la xool xam ne yow mii yaa am na différence entre yow ak les autres parce que yàlla bu bu bu jaam bi jegeñ loo yàlla rek bu yàggee yàlla ci boppam ci moo ko wax sax ci xaddisul qudsi mu mhm. ne sama jaam bi du denc di ma jege jegeñ loo ci ay naafila la yiw mhm. ba ma mujj ko sopp su ma ko soppee nekk ko su ma ko nekkee nekk di ay loxoom mhm. nekk di bëtam nekk di noppam nekk di tànkam yi muy doxee nekk di loxoom yi muy jàppee Cheikh Ibrahima Niass mu ne ku yàlla nekk sa bët di nga gis lu sori ku yàlla nekk sa loxo di nga laal lu ne parce que yàlla ñu fépp donc nag ah, jaam dina egg ci maxaawa boobu dem ba nga xam ne moom yàlla mooy waaw ñu jéggal ñu ci appel boobu doon dugg sànq. Mhm. kii kii kii woote itam bu fekkee mi ngi seetaan sëriñ bi na xam ne mi ngi mi ngi mi ngi en direct présentement. Hmm? Mhm. bëggoon def téléphone bi mode avion. Mhm. ndax ñi lay woo dafa bëri. noo ñu def ko mode avion léegi. waa kii woote sûrement mi ngi seetaan. donc may wax kon na. c'est-à-dire euh, nan duggaat ci zulmanier ak noo ko tuddee. nuuraanier waaw ñaar ñooñu nga xam ne ku ci amee nga ci alal. borom zulmaani ki nga xam ne ci ci ci lëndëm la lëndëm la amee alalam bakkaar lu koy yóbbu mhm. kooku mooy def kooku kala ala kulli alalam dina ma a dem waaw ala kulli alalam dana dem mhm. kooku li yóbbu alalam mooy mu bàyyi lu bon loolu muy def su koy bàyyi rek alal dem rey yeeg sàcc yëpp su koy bàyyi muy dem mhm. wa ilaa mu jóg dem di def lu neex yàlla naa mu jaamu yàlla di def lu neex yàlla yóbbu ba yàgg alal dem parce iblis iblis du ànd ak yonent bi salaa ci lenn su yonent jëmee penk moom mu nga jëm sow donc ñoom ñaar duñ bokk ay jotaay moo tax zulmaaniya baaxul zulmaaniya nit ñi dañ koy def rek àddina la yem waaye daf lay indil ay bàkkaar dafay waral sa diggante yàlla du neex day waral ëllëg boo dee ñu lakk la yóbbu la safara parce que yi ngay jëm ci yi ngay jëfandikoo yépp dafa xaraam li ngay jëfandikoo lépp dafa xaraam léegi nag su fekkee alal dong la alal am ko yomb na soo sellee rek nekk ni booy sell rek sa xol buy set rek nga nekk borom xaalis bu dee alal lu bëgg wax naa ko si sama benn jotaay maanaam alal ak wërsëg maanaam bokkut wërsëg ci biir alal ci biir wërsëg la nekk xaalis ci biir wërsëg la nekk alal nekk ci biir gis nga alal xaalis dafa nekk ci biir alal alal nekk ci biir wërsëg yaa ngi dégg mhm. donc bokkul waaw ndax kër gu rafet alal la waaw oto alal la waaw nit nag mën naa am kër fekk amul wërsëg. entreprise alal la. waaw parce que nit mën naa am alal fekk amul wërsëg nit mën na am xaalis fekk amul alal yaa ngi dégg. Mhm. parce que loolu c'est différent ay différent la yoo ay mbir la yoo xam ne. jëmm yi ak maanaa yi bokkuñu dafa laaj nit ñi ñu xam ko ñu xàmmee wërsëg ak alal. Mhm. donc nit ki zulmaaniya su fekkee ne da nekk koo xam ne da nga jëfandikoo lëndëm. Mhm. nga xam ne bàkkaar rek moo lañ may alal loolu soo bàyyee def bàkkaar yi da ngay gis sa alal daal di dem. su fekkee ne nag da nga yor nooraaniya maanaa koo xam ne dangay jëfandikoo leer nga xam ne yow sa liggéey ah ci jaamu yàlla nga koy def sell nga koy def dangay ngay génne xasaka dangay ngay julli da jàpp dangay ngay wirde da ngay ñaan da ngay dimbale da ngay saraxe loolu mooy nooraaniya barata di tudd yàlla loolu mooy nooraaniya léegi nag ki nga xam ne day jëfandikoo wàllu nooraaniya dafa am ci wàllu nooraaniya looy liggéey ba nga xam ne dangay ngay jékki-jékki ba yàgg bi am kale kale laa boobaa da nga nag sa supérieur mu xoolal la pour mën la dimbale gàgganti la ci gàggag boobu nga am mhm. des fois day am ay tur yàlla yoo xam ne mhm. dañ koy liggéey moo tax lépp lu ngeen di utiliser ci wàllu tur yàlla na ànd ak ndigal mhm. ndax yonent saa salaam bi ko yàlla waxee ooteel daf na ko ooteel waaye ci sama ndigal yaa ngi dégg kon ndigal Cheikh Ibrahima Niass am na lu mu ci wax moo tax ndigal dafa am solo lépp looy liggéey nañ ci am ndigal istixfaar bi ma joxe man am naa droit joxe ko parce que may nañ ma ndigal mën nga bañ a am niveau ci joxe ndigal mais ñu may la ndigal nga may ndigal da ngay am la ndigal mooy autorisé dañ la. Mhm. kii supposons tey nga ngay dem ci benn programme boo xam ne. sa dayoo sa daraja àggu fa. Mhm. mais nga dem ci ministre bi wala nga dem ci ci programme bi ki ñu yor programme ñu jox la laisser laisser passer. Mhm. soo ñëwee duñ xool sa dayoo ak sa daraja ndax mate na ko mbir. laisser passer bi moo lay permettre. nga mën a accès ci ni ci ci bi nga xam ne. yow leer na la leer yàlla na yow. sa niveau àggu ca. donc ndigal dafa am solo ci lépp lu ñuy jëf. ndigal nag mooy waral mhm. conséquences yi du la am ak ah, kii mhm. man mës naa liggéey benn secret boo xam ne ci ayatu kursi yi lay lay lay dox mhm. maanaa benn yoon boo ko wax rek da am mille ayati kursi yi soo waxee benn secret da wax mille dama ko dama ko am mais ci ndigal laa ko amee mais ba ma ko liggéeyee mille cent onze laa ko liggéey mille cent onze xam nga loolu dana nekk un million cent onze mille euh, ayatu kursi yi léegi léegi un million mille cent onze un million cent onze mille ayaati kursi nga liggéey ko ci benn guddi ci guddi gi ci même guddi gi li ma xamal la sirru bi baax na mooy ci même guddi gi laa gis kenn ku gàtt ku yor benn pikiir boo xam ne demal ni butéelu butéelu euh, ndox yooyu nga xam ne un cinquante le def pikiir pikiir bu toll noonu mhm. ci sama pooju càmmooy bi la ko sama pooju dajoor bi la ko jam xëcc ko mu génnee lu bari ba pikiir bi digg mu ne ma baax na mën ngaa mën ngaa dem ndax li nga jël ci dose dafa bari li nga jël ci dose dafa bari donc lu ma may sens ci côté boobu mooy dama am ndigal mais soo amul woon ndigal. la ci am moo tax mu sauvé la. mu sauvé la voilà mu wàññi ko léegi nag soo amul woon ndigal loola dafay des nekk tooke ci yow. ndax daf lay ëpp doole. mu doon ñi nga xam ne ñoo wér dafa dof ak. mu ngoog loolu la ñuy wax naan mm. da nga fa dafa laal turu yàlla dof ak dafa lii dafa laal dafa leen. Mm. moo tax tur yàlla yi am euh, euh, euh, baax na ci. Mm. nit ñi di ko sikkar mais ñu am ci ndigal soo ci amee ndigal lépp lu ciy conséquence da nga ciy mucc mm-hmm. lu ci inconvénient dañ nga ciy mucc mm-hmm. sa new ci yow dox nañ la ndigal ci karam mm-hmm. mais boo amul ndigal nag ci ci kar ak lu ci kar bi baax baax baax baax bu ko laal parce que amoo ci ndigal donc loolu c'est loolu baax na nit ñi xam ko donc am na secret yoo xam ne boo ko liggéeyee benn yoon da ngay am mille kii yaasin am na benn secret boo xam ne benn baat la boo xam ne boo ko waxee da ngay am da am yaasin hmm? da ngay am yaasin 41 fois te yaasin benn yoon boo ko jàngee rek mhm. am na secret noo koy liggéeyee mhm. da am mhm. li nga xam ne boobu mooy sa soxla mu ngi mel ne tey ndoxu zam-zam ndoxu zam noonu la mel secret bu garaaw la to gaaw maa ngi koy laajee biir nit ñi ku am situation bu critique bu la yéem jaxal la tuj sa bopp fexeel ba am ndoxu zam-zam original ndoxu zam-zam nga yéene ci sa soxla nga wax ne nangam laa bëgg nangam bi nga yéene ko ci soxla zam-zam bi nga naan ko parce que balaa balaa nga koy naan wax jooju nga wax ah, zam-zam bi ci jëm boppam daf koy capture daf koy téye zam-zam dafay dégg li ma lay wax nii man expérience bi ma la makka zam ndox yàlla tuddee na ko ndox waaye leer parce que man bi ma demee aji fa toog naa ñetti fan naanuma ndox ma dem ci toilette bi bëgg a ndox dara génnul fekk zam-zam rek lay naan fan zam-zam lay naan ma commencé perdre équilibre pour perdre kii contrôle. fu muy wootee France. France lay wootee xam nga ne xaaral. waaye dina dina comprendre dina xam dina xam su ma coupé ñaari yoon dina comprendre. comme coupé nga ko ñaari yoon. xam nga li ma la zam-zam bi ma naan bi ma jël. waaw ma ñetti fan may naan zam-zam naanu ma ndox. Mhm. léegi ma commencé di di di di déshydraté wu. Mhm. di ñàkk kattan di ñàkk contrôle sama may commencé miir. di ñàkk amatuma doole daal ma ne wax man qu'est-ce qu'il y a lu xew. ma ne waaw man ma dëkk ci kum yàgg ba ne ah c'est vrai man trois jours a ngi nii naanu ma ndox zam-zam laay naan ma ne mais man kon zam-zam du ndox. xaaral ma xool ma dem ci bouteille yi ñu la kees yi dafa am ay kees ndox. ma jël bouteille bi benn bouteille. dajji ko naan ko. ma commencé gis sama yaram bi di tàng di di di may nekk. ma jëlaat beneen bouteille dajji naanaat ñetti ma naanaat ñetti bouteille. rek normal. bi ma naanaat ñetti bouteille ma normal après quelque temps rek ma ma dem toilette. Euh, tuur ndox. te man ma seetlu man su ma naanee ndox mu bëri. su ma amee 30 minutes wala une heure de temps il faut ma dem toilette tuur ndox. mais ma gis ne zam-zam bi su ma demee ci xaram bi damay naan ba sama biir fees balaa may commencé tawaaf su ma tawaafee ba pare damay ñëwaat naan ba sama biir fees balaa ma toog fa di di di def samay awraat ba bañ julli suba ba sept heures ma balaa may ñibbi kër ga damay naanaat ba sama biir fees mais rendre ma compte fenn yoon fenn yoon boo xam ne dina ma yebal ma dem tuur ndox léegi ki ma nekkal ci néeg bi xam naa bu may seetaan dina xam ne moom ñoo bokk même chambre fële ca Makka. ca Makka ñoo bokkoon même Sambour ca Makka. Mhm. ñun lañ bokkoon dooroon rootaloon lu ku nekk 10 litres. Mhm. Euh, zam-zam ki ñu ko doon rootal moom ci boppam. Mhm. Euh, daf daf daf ñu doon indil saa yu manqué rek mu indil ñu. léegi moom mu continué di naan zam la ma daloon dal ko. mu jékki-jékki mu yàgg rek mu commencé am palu di loxo ma ne ko demal ci docteur bi comme danga am diabète mu xoolal sa sukkar est-ce que wàccul. mu ne ma damay liw ñu ne ko demal mu dem xool ko docteur bi ne ko sa tension baax na sa sukkar normal na. te gisuma ci yow benn palu gisuma ci yow feebu mhm. da nga am mu ne mu ne mu ne moom mu ngi lox mu ngi kii ma ne ko mais après ma ma sama xel dem ci zam-zam ba ma daloon ma ne ko kañ ndox mu ne ma man ma cinq jours ngi nii naan ma ndox ko da ngaa ndox mu ne man maa ngi naan zam mu ne ko sëriñ bi zam-zam du ndox li leer la bu ñu yàlla xéwale la mbindee fi yàlla yi ci kaw suuf xamuñ ko mhm. mu ne ma non. après fekk am na benn arabisant bu nekk foofu boo xam ne étudiant la foofu mu ne ah yàlla ci alxuraan a mhm. la waaye xam ne leer gi nekk du lumière yi kon daal zam boo si ñaanee alal yàlla dina la ko may yàlla da lay may alal dafa ma leer yaa ngi dégg kooku noonu toog ma ne ko jëlal ndox nga naan ko fekk mu ngi lox bay sang mbàjj mu ngi lox ma ne ko jëlal ndox nga naan ko mu ne ma maa ngi naan ndox ma ne ko jëlal ndox nga naan ko soo da ngay dee mu jël ndox bi ñetti butéel naan ko bi mu ko naanee ñàkk tooy xet ci si la dëñ kon xam nga ndox ndox zam-zam secret la secret la mu ngi mel ni kaaba gi secret la xajit aswad secret la ah istixfaar secret la yaa ngi dégg la loolu man maa leen ko wax. aji màkka secret la omra ji secret la yooyu yëpp dafay tax nit ki wërsëgam du dakk d' accord léegi ñu ñëw ñi ñi ñëw ci sam zam ku am soxla secret yi laa leen di jox yoo xam ne dafa terre à mhm. yomb nga xam ne soo ko laalee da ngay seede gën na lii wér na zam-zam day joxe alal zam-zam day maye xaalis day dindi problème supposons tey nga am problème bu sérieux bu bu la jaaxal boo xam ne suppose comme tey nga war la tëj prison wala nga am bor boo xam ne di la taxaw wala nga nekk ci situation boo xam ne dafa critique dafa métti tiit nga tiit tiit tiit ba xamatoo nooy def li ngir yàlla ak yonent bi ndoxu sam-sam nga yéene ci parce que sam-sam day dégg. waaw parce ni ni nga koy waxee nii yaa ngi wax fi mu nekk nii. dama ko wax fi mu nekk nii. waaw parce que xam nga dama waxee nii ci sam-sam waxee ma ko ci istifaar. te donte istifaar nag dama ko takkoo. waaw xam naa ko. Mhm. loolu yëre mais dafa nekk loo xam ne sam-sam dafa nekk loo xam ne amul effort yow xam nga ci effort bi lan la. fexeel ba am original ndoxu sam-sam. nga ñaan ci sa soxla nga yéene ci sa soxla. Mhm. nga wax baati. Mhm. gis nga boo ko yéenee nga wax nga wax baati ah. Mhm. nga yéene koo pare nga tuttu ko. sam-sam bi da koy dikk xoolal dañ koy régler ci saa si bii mën naa leen ko jox mën naa ko jox eh, eh, eh, pour secret yi nga xam ne. day dimbale nit ci situation yi critique ak yi nga xam ne dafay maye xaalis. d'accord léegi nan ñëw ci cat lu muy def alal. nu muy def wërsëg nan lay def euh, matériel lu jàmbur cat nan lay yàqee alal cat ni muy def nit lay def alal xanaa xam nga am na ñu bëri ñoo xam ne dañoo dee cata leen rey dee carrément dañoo dee fekk deewuñ seen dund ci seen biir suuf lañ ko àggale seen bàmmeel lañu àgg ñu bëri dee nañ fekk dañ leen catu fekk si suuf suuf si ci biir suuf la ñuy eggale seen dund fa la ñuy dee am na ñoo xam ne mën nañ dee ci dund ci biir suuf fukki fukki fan wala wala semaine wala ay ay weer ci biir suuf si soog a dee fekk dañ leen a catu ba rey leen doo dégg ñu naan cat dana topp nit ba ci bàmmeel mhm. loolu moo koy indi wala nga am na ñoo xam ne danañ dee ñu war leen miraas du leen miraas parce que dañ dañ leen catu cat day yàq alal cat day gàllankoor nit cat day gàllankoor wërsëg cat day gàllankoor nit dalay dalay yàqal moo tax képp ku la catu ne ko maasha allah bu ci rus bu ci am kersa bu ci am dara gaa ngis nga gàllaaju cat bi gën a garaaw gën a am doole mooy maasha allah lu la waaye mën a wax ah yow defee nangam ji rafet na macha allah soo ko waxee mu la na mer moo xam parce que ku jël ba jël intention na la sa nangam jéeg a rafet yow it amal sa fayda ju sëkk na ko macha allah gis nga soo ko waxee cat du la yàqaal dara kenn mënut laa catu ba mu yàqu. tamit bokk na ci li nga xam ne sa alal day tax bu yàqu mooy looy def nga wax bismillah looy def nga wax bismillah sooy uyu téléphone nga wax bismillah seytaane si nekk ci téléphone bi da koy day daw. booy dugg sa oto booy dugg sa oto nga wax bismillah sooy dugg sa kër nga wax bismillah sooy taal sa làmp nga wax bismillah sooy naan nga wax bismillah sooy sol sa yére nga wax bismillah garantie cent pour cent moo raw blende xam nga téléphone yi am na seen écran yi blende waaw blende bi gën a garaaw ci nit mooy ngay wax bismillah ko kon daal cat noonu lay def doomu cat noonu lay def nit cat dina tax nga damm cat dina tax nga feebar am na ñoo xam ne dañuy feebar ñu dem hôpital duñ leen gis duñ gis ci seen yaram dara. da ngay scanner cat moo koy def lu loo moom nit fu loo mën ci sa bopp. soo xëyee gis nga ne cat li koy dindi. Mhm. bokk na ci bismillahi rahmaani rahim. 21 fois. Mhm. nga bind ko basmala nga bind ko 21 fois nga sangoo ko. Mhm. moom ak xobu ñaam bi xam nga wax naa ko ci sama beneen jotaay. waaw xobu ñaam bi gis nga xobu ñaam bi. ak laurier nga dëbb ko ak laurier. loolu fàttali nga ma ko. loolu waxoon nañ ko ci yoonee passé. waaw répété leen ko rek. mayaat leen ko rek. amaana am na ñu ko déggutoon. tàllal kii bi tàllal kii kii climatiseur. kii baa la fële kooku wàllu sax moo ko maa ngi ñaq te yoon. donc loolu la cat li ma la li ma li ma li ma li ma la ci wax ni donc loolu moo ci nekk cat boo amee laurier bi nga laurier nga jël xob yi nga baxal ko boo jëlee xobu laurier nga baxal ko di ko naan hmm? di ci sangu suba euh, euh, ngoon nga jël xobu xobu xobu xobu ñàmbi bu tooy bi xobu xobu ñàmbi bu tooy ngay jël nga baxal ko hmm? euh, nga dëpp ko doo ko baxal xobu ñàmbi bi doo ko baxal de xobu laurier bi ngay baxal hmm? parce maa ngi ci xaalu zam-zam parce que dafa am benn émotion mu dundoon màkk bu neex boo xam ne xaal bu neex. waaw ay réalité yooyu dund di ko gis. xam nga dafa waaw mais nag dama ci kaw rek nga wàccaat waaw maa ngi jégalu maa ngi jégalu <laughs> waaye askan bi ñuy seetaan. waaw la bëgg ñu kii parce que wàllum alal la ñuy waxtaanee wàllum wà wàllum richesse. nan la ko nit ki di amee. Mhm. moo dafa bëgg nit ki nga wax ko nan lay def ba am alal. alal dafa am solo dafa war a am alal man man dama gëm alal xam nga alal. Mhm. nit kuy dund soo bëggee am alal da ngay da ngay nekk nit nit ko conscient xam nga nit ku logique nga logique mhm. dafay maye alal waaw yaa ngi dégg léegi ñi ngi woon ci cat ñi ngi woon ci wàllum cat waaw wàllu cat lu koy réglé lu koy réglé lu dimbali nit ci wàllu cat nga xam ne dafay din ci moom mhm. moo bokk na ci la mooy nga jël bismillahi rahmaani rahim nga bind ko vingt et un fois waaw nga basmala rek wala basmala wala faatiha gi bismillahi rahmaani rahim kese kese vingt et un fois vingt fois nga bind ko nga xooj ko ci ndox nga sangoo ko mhm. wala nga bind faatihatu faatiha mooy bismillahi rahmaani rahim ila axiri suura mooy ba wala daalin amin soo ko bindee nga bind ko sept fois sept fois sept fois nga nga sangoo ko noonu lay dindee cat bu dee faatiha gi sept fois bu dee faatiha sept fois bu dee waaye faatiha sept fois boobu ak bëri ay siru ak bëri ay secret ay mbóot yoo xam ne kun fa yëkkun la xanaa xamoon ne si secret faatiha am na ci soo bëggee wax mu am mhm. am na ci noo koy liggéeyee sept fois faatiha loo wax mu am soo waxee nit tey tey nga dee suba mu dee soo ne nit tey mu am alal tey mu am alal soo ne nit ki dana ñàkk mu ñàkk kun foo ko yónni yëkkoon ak yàlla gi la la yàlla jox loolu nag c'est loolu lu nekkul lu nit mën a imaginer waaw kii nee na kii nee na kii commentaire na zam-zam bi xam naa zam-zam bi mën a dagg bi nga doon wax ma dagg la moom lay wax nii nee na nga dellu si si zam-zam bi waaw benn waaw waaw waaw incha allah dinañ ci dellu si daal Alassane Alassane Touabou Ndiaye dinañ dellu si ci zam-zam bi waaye nan continuer ba tey ci wàllum ci wàllum kii bi ci wàllu cat bi. cat bi luy luy may nit cat cat bi dañ. waaw luy may nit wala lan mooy cat d'abord. cat làmmiñ cat dafa am dafa am ñetti xeeti cat. waaw xel ah. bët làmmiñ ñett yi ñooy catu nit. nit lañu catu ci xel moo gën a garaaw. xel xel nga yor dara moo tax di def attention baax. soo mm-hmm. amul yenn protection yi. Mm-hmm. di fësal sa yenn yi wuur. Mm-hmm. wala di wane sa yenn yi wuur. wala soo il faut nga def il faut nga jóg ci sa bopp. pour nga taxaw làmmiñ dina cat dina catu nit bët dina catu nit mais xel dafa garaaw parce que xel moom. Mhm. wëli yi ci la ñuy liggéeyee. Mhm. dëmm yi ci la ñuy reyee nit ñi gaaw yi xel dafa garaaw. Mhm. xel mooy warwaay bi gën a gaaw gën a faj gën a mën a faj xanaa xamoo ñaan gën a gaaw utiliser sa xel moo gën ci gaaw ci ñaan moo tax am na ñoo xam ne ñu mën war warwaay boobu bon ñaan. baax na léegi xel xel est-ce que du ñeetaate. non du xel ñeetaate bokkut ak ñeetaate ñeetaate baax na. ñeetaate baax na. mu kañaan dafa am xel dafa am ay pàcc. tamit kon xel mooy kañaan. déedéet xel du kañaan dafa am xel dafa am ay xaaj xel. dina danañ ko jëfandikoo ci kañaan. danañ ko jëfandikoo ci ñeetaate. Mm-hmm. danañ ko jëfandikoo ci kontaante. Mm-hmm. danañ ko jëfandikoo ci. Mm-hmm. gërëmante gërëmante mhm. ne nañ ko jëfandikoo ci lu ne nit ki dañ mhm. ko gërëm ci sa xel mhm. te doo ko wax dara sa xol ànd ci Alassane Touba ñi ngi dellu si ñu ngi dellu si Alassane Touba dañuy continuer waxtaan bi tuuti rek mu ne leen waaw nee na jàppale ko ci zam-zam bi rek waxtaan waaye dinañ ci dellu euh, dinañ ci continuer dinañ ci continuer sëriñ bi Alassane ñi ngi jéggul ñi ngi ñëwaat léegi léegi insha allah rabbi waaw léegi continuer ci ci ci wàllu ci cat nga dafa bëri ay pàcc pàcc pàcc boobu nag mooy nit ki bët am na ñoo xam ne mu ñu lay ci bët yàqale dañ lay xool rek lay xool nga yàqal te loolu am ay technique. xanaa est-ce que xanaa du mooy dëmm boog ñu ñu bàyyi ci kàddu. waaye lu am la waaw dafa am dëmm na. am na lu ñuy wax dëmm mais dëmm dafa am ñoo xam ne dañuy seytaane dafay laxasu ci ñoom. yaa ngi dégg. seytaane boobu di laxasu ci mooy doon seen ruuxaaniya. ñi nga xam ne ci la ñuy loree ñu bari. moom loolu la ñuy waxee dëmm. mën a danañ mën a danañ mën a transféré wu danañ mën a transféré wu ci ay. ay distance dem jugee ci place dem ci place yàq ñëwaat dellusiwaat loolu dafa nekk dëgg. yaa ngi dégg. kuy weddi dëmm. benn mag mos naa toog mu ne ma Cheikh Omar ma ne ko waaw mu ne ma dëmm daal ku koy weddi. Hmm? Euh, nga dëmm nga. wala nga dëmm nga wala dalaa jàppagul. wala dangaa gisagul kum jàpp. mu ne dëmm koy weddi dëmm nga. wala dalaa jàppagul wala dangaa gisagul kum jàpp. wala dangaa dalaa jàppagul. wala dangaa gisagul kum jàpp. waa man moom xam naa dëmm am na. Mhm. parce que man mhm. xam naa ci dara. Mm. képp kuy sëriñ di oote ci paj mm. da nga naan da ngay faj ay dëmm ki rab mm. dañ la ñëwal soo dee fenkat nag bu ñu ñëwee seet xam ne fenkat nga dañuy dem duñ dellusiwaat mm-hmm. mais soo dee fajkati rab mm-hmm. des fois da ngay faj nit ñëw ci yow nga ne eh, diw sàngam bàyyi ko sa yoon nekk ci bul dox suñu diggante ak moom mm-hmm. man wax nañ ma ko ba tàyyi yaa ngi dégg maa ngi jégalu ci ci baat boobu sax ndax waruma koo wax sax ndax tey jotaay bi. waaw jotaayu jotaay moo ko laaj laaj. waaw du jotaayu lu jotaayu kii la jotaayu laaxante biir la. waaw Mamadou Mokhtar Diallo. Mm. Mamadou Mokhtar Diallo neen dafay laaj lan mooy effacer bàkkaar Mamadou Mokhtar Diallo. bàkkaar li koy effacer mooy benn li ci njëkk mooy istixfaar. Mm. istixfaar mooy effacer bàkkaar bi ci topp mooy nga yéene nit ñi. Mm. li nga yéene sa bopp. Mm-hmm. parce que Yunus saa dafa wax ne. Mm-hmm. nit du nekk jullit. lu dul li mu yéene boppam mu yéene ko ay lu mu yéene bokk boppam yéene yéene ko ay mbokkam mm-hmm. bokk jullitam mm-hmm. kon boo bokk na ci ndax am na ci benn benn bés yonent salaa salaam toog ci ak saxaabaay mi mm-hmm. mu jékki-jékki mu yàgg mu ne buntu bii ki fay ñëw nit wa nit aljana la koo xam ne waa aljana la ñu jékki-jékki benn saxaaba dina tëll ñëw gars yi xool ko gisuñ ci moom benn may déggaduñ ko benn jaloore xamaluñ ko lenn lu ñuy xamee ci moom ne kii nit aljana la gars yi benn Seydina Omar sama juumul yaakaar naa. moo dem ci moom. ne ko man kat damaa bëgg nga fat ma sa kër ndax damaa euh, joteeg sama kii wax ko daal pour bëgg bu fat ko këram. bu fanaan nag moom ba bës set mu gis ne. moom daal nit ñi di def def lay def day julli gaye def safaa weta tëdd na. mu ne ñetti fan maa ngi nekk yow pour am yooyu jëfandikoo. ba tax yonent lu tax nga euh, euh, am may gi nga am mu ne ko man daal damay su ma xëyee sootee. Mm-hmm. danaa fas sama xol ne du ma éene benn jullit lu bon. su ngoon jotee balaa maa tëdd ci laal danaa ko éenee fas yéene na du ma éene benn jut lu bon bi des ci guddi gi mhm. kon loolu dina tax yàlla jéggal la sa ay bakkaar mhm. mooy éene nit ñi jàmm mhm. beneen bi ci topp mooy ngay taxoo di def istigfaar ak moytu bakkaar yi day tax yàlla efface say bakkaar ak di bëri di julli ci yonent bi salaatu faatee day lakk bakkaar comme ni karaw di lakkee cunkóor noonu la koy def benn jinne mas na maa wax ne salaatul faatee daf ñuy lakk ni Euh, safara di def karaw. Mhm. noonu lañu salaatu faatee di def. Mhm. kon salaatu faatee day lakk bàkkaar nañ ko xam. Mhm. moo tax yonent saa salaam c'est pas euh, euh, pour rien du moo tax. yàlla jox yonent bi. tarixa ah, indi ko jox ko Cheikh na Ahmad Tijaan la. donc nit ñi nañ bàyyi xel ci. julli ci yonent bi. daf secret la buy effacer bàkkaar. Hmm? salaatu faatee day effacer bàkkaar. istixfaar dafay effacer bakkaar. indi mhm. nit ñu lu baax dafay effacer bakkaar. Mhm. Euh, saraxe dafay mhm. effacer bakkaar. waaye ce que boo effacer bakkaar bañ bañ bañ a defaat même bi itam. loolu nit mënu ko nit mënut a ñàkk a def loolu yow yow bakkaaral rek mais baaluñu. ñëppay bakkaar. waaw bakkaar bu baalu yéen saa saa def na su ngeen bakkaaru. Hmm. baaluwu leen yàlla yàlla hmm. jëlee leen indi ñuy bakkaar yi ko baalu. yàlla dong moo jekk jekk jekk jekk. Hmm. ci mucc ci bakkaar ak ak ak ab yonantu bu yàlla yónni. ñoom ñii ñoo mucc ci bakkaar. te yonent saa sallam yàlla wax ne innaa fatahnaa laka fathan mubiinan li yaxfira laka llaahu maa taqaddama min zanbika wa maa ta'axxara hmm. loolu yëpp wan ñu ne rek amu leen amu leen dayoo mucc ci bàkkaar hmm. parce que yonent bu di yàlla bi demee ba yàlla du ko baal ay bàkkaaram hmm. te bàyyi na si nee na yonent bi ci boppam sax amul bàkkaar yàllaa ko baal ay bàkkaaram rek ngir jàngal ñu waaye yonent mucc na ci bàkkaar ndax koo xam ne yàlla bind na ko yónni na ko booba yonent nekk aadama amagul rabbiyan aaliman bi nubuwwati wa adama bane baynal maa i watini hmm. loolu wala xamee nañ ci rek ne yonent bi yàlla yónni na ko lu jiitu muy nekk eh, eh, bu wàcc ci kaw suuf hmm. kon bàkkaar yooyu yàlla baal ko hmm. bàkkaar la yoo yoo xam ne eh, la Cheikh na Ahmad a si def radiyallaahu anhu waxoon rek ne xaala ma asnabtu soo waxee na man du ma def bàkkaar mu aji wax ji wax la xaaral wax ne aji wax ji wax ne wujuutu ko zanbul laa yuqasu bi mu ne péeb yàlla bi dana la wax ne sa am ngi rek wujud gi nga nekk rek dèjà bakkaar la sa am gi nga nekk yow am gi nga am rek dèjà bakkaar parce que yaa ngi fi te yàlla dafa bëgg ko wétal mhm. soo fi nekkee rek wétal yàlla dootu amati mhm. parce que yow boo fi nekkee yàlla dootu ku mën a mënati wétal mhm. léegi kon ku wétalul yàlla yaa ngi ci bakkaar ki wétal yàlla mu mucc ci bakkaar kon wujud gi rek bakkaar la kon yow bul wax ne mënoo def bakkaar yow baalul rek hmm? kon baalu même Mamadou même même Mamadou Mokhtar Diallo bi. xam naa dafa yéex dugg si ci direct bi. Mhm. mooy laajte secret istixfaar. Mhm. waaye nag xam naa ne pour ñu pour nga dellu si waat ci. non 1947 la secret istixfaar 1947. chaque jour chaque jour avant ñuy def salaatu mhm. xayru mina nawm. boobu balaa ñuy wax salaatu xayru mina nawm boobu. nga di nga sikkar ko. 1947 fois. soo bëggee nag mu gaaw nga am xaalis avant ngay tëdd la avant ñuy salaatu avant ah. ngay tëdd. avant salaatu. avant ngay tëdd nga def ko 1947 tëdd. nga tëdd boo 4 heures nga yeewuwaat defaat ko 1947. 4 heures du matin nga yeewu def ko 1947. soo paree nga tëddaat. soo non boo paree nga julli suba ba pare nga soo ko tëddaat. bu bu ñàkk a ne kii xanaa xamoo ne di yeewu fajar di julli wërsëg di julli day tax nga am wërsëg day tax nga am xaalis. di julli fajar yeewu suba teel julli fajar soo ko Mhm. bu ñu xamoon programme bi yàlla programme l'islam mhm. nit ñi suñ ko jéggoon rek mhm. kenn du leen xëy si jaamu ji yàlla intérêt yi ñu bëgg yëpp ci àddina ba tax ñu fër fëri di dem mu ngi ci liir l'islam soo koy utiliser pratiquer da ngay gis yàlla daf lay yombalal lépp luy affaire àddina la la ko yombalal waaw léegi euh, kii lu mu laaj sax moom am na ko laajte munoo xobu ñàmb bi xobu ñàmb bi lay laajte voilà xobu ñàmb bi ñu ngi ci woon àggaguñu woon xobu ñàmb bi dafay dindi cat moom laa lay wax ci cat xobu ñam bi dafay dindi cat hmm. soo ko jëlee bu ci tooy tooy bi noonu hmm. soo demee ci rond point case ba hmm. rond point Cambérène croisement Cambérène waaw boo jugee parcelle waaw wër croisement Cambérène mel ni kuy dem Dakar waaw ci foofu ñuy jaayee oto yi noonu waaw bëgguma tur tur tour tur bi waaw foofu ñuy jaayee oto yi noonu waaw si foofu nag ci côté boobu dañ fay jaay xobu ñaam bi xobu bi waaw tout le temps dafay am ay xobu ñaam yu tooy gis nga boo ko jëlee nga dëbb ko ba mu ba mu sàjj ko ba mu nooy mm-hmm. nga nga nga xot ko ci ndox mi nii segg ko ba mu set waaw mm-hmm. nga koy sangoo mm-hmm. ñetti fan rek doy na ci dafay raxas cat ba mu set wëcc ak ci gaaw ci même instant bi nga ko sangoo la cat bii dañ day raxas cat dafay raxas cat carrément léegi nag boo bëggee mu gaaw gàllankoor yi nekk ci cat dañ da nga koy boolee xobi laurier xobi laurier xobu laurier léegi soo jëlee xobu laurier nga baxal ko xobu laurier bi nag moom doo ko dëbb da nga ciy da ciy jël lu xaw a bari rek. Mhm. nga baxal ko soo ko mhm. baxalee ba mu bax. Mhm. ah nga ko sangoo moom nga boole ko xobu ñaam bi sangoo ko xobu lëriye bi ñaambi bi xobu ñaambi bi suba xobu lëriye bi ngoon. gàllankoor ci saatu da koy dindi. wax naa wax naa ci ci émission bi passé ma ne xobu lëriye bi boo jëlee xobu lëriye nga dëbb ko boole ko xobu ñaam bi suur ko ci kër gi kër gi bu amee gàllankoor nit ñi duñ juboo wala kër gi di am naqar. jafe-jafe lekk jafe-jafe dund jafe-jafe tranquillité feebar yi bari fa wala ñu xam ne kër gi yaa quelque chose am na rab. Hmm. wala dara suul ko fa doo ko fa suuree yàlla dina ko fa dagaas. Hmm. am na ko envoyé message ci messenger bi bon euh, nee na mënumaa commenter lii waaye laajal ma ko mi ngi laaj daal luy luy dindi gént gént yu métti gént yu ñàng yi. gént yu ñàng yi. waaw ñaar dana ko def. gént yu ñàng yi ñaar dana ko def. Euh, sàggane sa bopp ba seytaane dugg la wala nga am ndoxu siti bu bari. sàggane sa bopp ci lan. sàgg na ci bopp mooy ñàkk am ay ñaan ak nekk ci bon maanaam ñàkk ay ñaan ba seytaane dugg la rab yeeg yooyu dugg la hmm. dina waral gént yu bari parce que ñoom dañuy àbb sa sa roxaan ya dañ koy àbb hmm. dañ koy kidnappé dañ koy contrôler hmm. ñoom ñoo ci ñoo ci ñoo ciy jëf ndax gis nga nit nit dafa nekk esprit te yeneen esprit yi waroo faible bañ lay contrôler mooy waral ñuy gént dafa am benn li ñuy wax ruuhu ak ray rayxaan maanaam ruuhu ak ak rayxaan mooy li nga xam ne soo tëddee nelaw moom ngay gis moom mooy dem mooy dox yooyu mooy yooyu dañ koy téye ñu bari sax bu ñu la bëggee jàpp bu ñu la bëggee liggéey yooyu la katt capté moo tax ñu bari bu ñuy liggéey secret pour téye nit guddi lañ koy liggéey yaa ngi dégg léegi loolu daal dina ko def sàggane sa bopp ci wàllum dana ko def loolu laa loolu laay ñëw yi mm-hmm. dina ko def léegi nag soo sàggane sa bopp nag wala nga am ndox si ci bu bëri dina a ngay gént ay muus wala gént ay xaj wala gént yooyu yëpp loolu ndox surtout bëri moo koy def ñu bëri xamuñ ko nag mais loolu man sama domaine la damaa dem ba am xam-xam xam loolu ñu bëri bu ma waxee loolu su ma dañ koy dañ koy naan mu dañ gént yu métti yu bon boo koy def boo na na ko yàlla en général ñu mel noonu boo leen ko laajee rek da ngay gis yenn yenn kii waaw ñu dugg ci wala yenn stress yu métti waaw ñu dugg ci question messenger yi tuuti mhm. am na kuy laajte également maanaam néegu sëy moom nee na digganteem ak borom këram daanaka histoire dafa bëri nee na nee na bu bu borom këram di wàcc nee na nee su borom këram di wàcce sax pour dugg ci kër sax moom fit bi day daw. rab rab moo koy dana jël xobu lëgee mm. mu ak xobu ñaam bi mu dëbb ko boole ko mu suur ko ci kër gi mm, mm. su ko defee ñoom seen ñoom seen diggante jàmm dana ci am mm-hmm. day dàq seytaane bu nekk si diggante ay sëy mm-hmm. waaw wala mu jël bismillaahi rahmaani rahim mm-hmm. mu koy jàng ñaar fukki woon ak benn di ci ndox di ko naan waxaatal waxaatal mu dégg bismillaahi rahmaani rahiim waaw mu jàng ko ñaar yoon benn ëf ko ci ndox naan ko waaw yow mi nga day dindi tiitaange tiitaange fit yow mi yow mi nga xam ne nee na ah, daanaka sa diggante ak borom kër neexu ba buy dugg si kër gi sax da ngay tiit nee na ngay ngay jàng muy jàng bismillaahi rahmaani rahiim bismillaahi rahmaani rahiim ñaata yoon ñaar fukki yoon ak benn 21 fois 21 fois nga ko jàng bismillaahi rahmaani di ko ëf ci ndox naan ko naan ko voilà waaw waaw kii moom dina dalal xelam ci digganteem ak jëkkëram su fekkee ne dafa am seytaane bu nekk seen diggante ñu xobu ñaam yi wekk ko ba ngoom boole ko dëbb ko suuf ko ci kër gi waaw kii nee moom moom nee na mi ngi France mhm. mais neen nan la def ba moytu moytu bët ndax moom dafay nit ko fës neen daf fës lool mi ngi France nan lay def ba moytu bët waaw bu buy génn ci buntu këram muy wax laa xawla wala quwwata illaa billaah buntu këram rek buntu këram muy génn na koy wax ñett ñaar fukki yoon ak benn su mënee uh, kii uh, uh, ñetti yoon laa xawla wala quwwata illaa billaah suy génn buntu këram na ko wax léegi su fekkee dafa bëgg a mucc ci bët hmm, nay bëri lu muy sangoo bismillaahi rahmaani bisimilah rahmaani rahim basmala moo koy mu koy sangoo voilà bu fekkee du koy mën a bind foofu ni koy jàng daal comme ni France xam naa ne pour bind beeg yónnee mu koy jàng daal looy bind ak loo wax la rek waaw kon daal laa hawla wala xawata bu fekkente ne yow maam sawru fall mm-hmm. waaw non bu ñu tudd nit ñi ngi koy gis. Ah, waaw da koo da koo daf ko commenté. waaw gërëm maam Sow ñu ngi ñu ngi ñu ngi jégalu waaye nag. waaw waaw nit ñaa ngi moom dafa commenté laajte. donc damaa dugal ci messenger waaye génnoon naa. Ah, d' accord waaw messenger waaw baax na baax na bis continuer la pour dimbale nit ñi la pour dimbale nit ñi la. waaw pour dimbale nit ñi la rek. Ah, nee daal nga saxoo. Mm-hmm. laa hawla wala quwwata illa billah mm-hmm. sooy ah? génn sa buntu kër nga wax booy sa buntu kër nga wax ko ñetti yoon. jàmm ngay dem ñëw si jàmm. jàmm ngay dem ñëw si jàmm. loolu baax na sax pour keneen ku ku si wut ko yëpp yëpp. voilà loolu daal pour moytu pour moytu bët la yow bi nga xam ne ko fës nga. Hmm. Hmm? waaw kii moom nee na waaw mooy même même laaj bi la ci messenger bi. Hmm. moom nee na moom it géntu ñàng daal moo ko sonal. nee na géntu ñàng trop trop trop moom moo ko sonal. na def ko ndoxu siti. ba pare na bëri di sangoo la ah. traitement ndoxu siti ndox siti moom mooy def gént yu bon. gént yu bon yi. waaw ak stress bu métti. waaw gis naa fi yeneen message sànq ci affaire gént xam naa ne bëri na trop daal daanaka. gént yu bon yooyu moo koy faral di def. ñaata yoon ñaata ñaata yoon laa xam ne am na rab. Mhm. boobaa ne nag na ut euh, xobu laurier bi ak xobu ñaam bi mu sànq fekk tey moom xobu laurier xobu ñaam bi laa leen jox. waaw <laughs> waaw laa xawla jërëjëf nee ma amut solo ci ci tudd gi ma tudd turam jërëjëf macha allah kon allah ñaata yoon nee na euh, ñetti yoon nga koy def laa hawla wala quwwata illa billah ñetti yoon nga koy def. boo génn sa buntu kër nga wax ko boo sa buntu kër nga wax ko. waaw nga kii ki nii rek taf sa kanam. Mhm. voilà ah, kii mooy laaj seen numéro nee na mi ngi Norvège waaw baax na su ma paree dinaa la ko jox incha allah rabbi. voilà xaaral xaaral ma bind ko. tey tey maanaam porte ouverte la. waaw. tey porte ouverte lu waaye bëgg rek na laaj luñ ci am xam-xam rek ñu wax ko ñu ci xamuti ñi ne xamuñ ko wala luñ ci du suñu domaine ñu ne du suñu domaine. waaw lii daal mooy mooy mooy mooy numéro bi ah. waaw numéro bàyyi noonu nga bañ a woote nag mi ngi nekk en direct nii nga bañ a woote. ah waaw nee na kii moom nee na dafay laajte ku bëgg dindi liggéey ci yaramam. dafa am loolu moom dafa am dafa am secret. kii nee na liggéey. la ko am secret ne pour dindi liggéey. Mhm. waaw loolu Euh, ah boobu man am na ci loo xam ne moom mënuma ko expliquer ci hmm. ci kii bi hmm. mais am na ci loo xam ne mën naa ko expliquer waaw mais loolu dafa laaj euh, jox ko lu mu mën a defal boppam rek lu mën a bokkut ak après lim lay woo yow ngeen ngeen jëf su bëggee liggéey denc moom waaw dafay jël euh, kii nu mu tëddee pëndox bant jalambaan jalambaan mooy lan <laughs> loolu dafa garaaw waaw jalambaan na mënuma ko jalambaan bant la boo xam ne am na ñu koy yett kurus am na ñu koy yettu kurus. jalambaan ak ak ak fuuf. fuuf ab lan la moom. sunguf la wala sunguf fuuf. waaw mu suuroo ko day day boole jalambaan ak fuuf. fuuf waaw kon yow miy laajte question bi. xam nga xam nga nga laaj. <laughs> baaxee ko rek baaxee ko rek baaxee ko rek. <laughs> xam nga des fois am tuuraay bu may sotti nga naan li xanaa poobar bi la. waaw ah poobar bi moo nekk noonu gën. <laughs> xam nga man damay joxe secret yi may jëfandikoo laay joxe. voilà léegi sooy joxe. Hmm. yeneen saa salaam eh, eh, yàlla dafa wax ci alxuraan lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun. doo hmm. am mbaax lu dul ne li nga joxe li nga gën a bëgg. d'accord donc lu may may jëfandikoo man. Hmm. moo tax yenn saa yi suñu ma yàlla laajee yeneen secret damay bañ di ko joxe publiquement. d'accord parce que loolu am na ñoo xam ne boo leen laajee yéen dañ lay wax jël ma si suuf. <laughs> waaw garaaw léegi nga ne moom mi di laaj. lu dindi lu dindi liggéey. sungu fu fuuf da ngay jël sungufu fuuf nga boole ko jalambaan. xa waaw pëndaxu pëndaxu jalambaan. pëndaxu jalambaan nga koy suuroo. jalambaan nag yombul mu suuroo ko bu ko suuroo rek day day. demal laajte ci marché bu la gën a jege wala ku la mën a jox pëndax mu leer na pëndax bii la. foofu la suuf fuuf fuuf. pëndaxu fuuf. ak sungufu jalambaan. ak sungufu jalambaan. noonu la gaawee ci cat noonu la gaawee ci liggéey ci saa si la koy dindi. da nga koy suuroo boo ko suurooyee tant que wàcc na dañu. loolu mën naa leen ko pour nga xamaale ko ñëpp nag jox naa leen ko ku bëgg na ko jëlaale. waaw même sax kuy def ay ñaan sax bëgg nit ñi di wax ne yow aay nga. waaw ko defaale si sa ay bagages. d' léegi ñaata yoon basmala bi pour euh, ki doon laajte sànq euh, nekk France nee na mooy laaj ñaata yoon basmala bi quoi. 21 fois. waaw basmala 21 fois basmala soo ko defee tufli ko ci alal joo bañ ñu sàcc ko sax boo ko fa tegee duñ ko laal. d' day sàmm alal day sàmm nit. waaw waaw léegi. kii moom mu ngi laajte ci wàllum cigarette. Mm-hmm. cigarette moom dafa dafa. amaana dafa commandé rek cigarette dessiné cigarette bi. Mm-hmm. amaan day laajte nu muy def ba bàyyi cigarette wala cigarette daal. nit ki am na ne dafa compliqué pour wax ko nii. waaw ñu boole cigarette ak ak naan sàngara ndax euh, am am na ko doon laaj ci keroog su ma su ma juumul. waaw yow moom foofu ñëw. voilà foofu ñëw mu woote rek mu woo waaw numéro baa ngi noonu bis boo jeexee émission bu gisee émission bi jeex rek mën ngaa woote. bu yoree kuréel si dina la boo koy kii nee na ci messenger ñu dellu ci messenger ndax commentaire bi amatul question messenger bi kii mi ngi laajtee nan lay def ba moytu gént yi boo gént yi gént yi moo rek waaw gént yi moom bu fekkee da nga bëgg tëdd nelaw gént lu baax gént jàmm da ngay jàng faatiha benn yoon ayatul kursi ñetti yoon mhm. nga jàng lixlaas mhm. ñetti yoon falax ak naasi ñetti yoon bu ci nekk ñetti yoon bu ci nekk ñetti yoon loolu ko tëdd ko mhm. nga tëddee loxo ndeyjoor boo ko defee jàmm rek loo am benn gént bu bon jàmm ngay gént ba ngay yeewu te nag foofu loo fa gént day leer dëgg la Mhm. lu ñu la woon rek jàppal na xaqiqa la mhm. Mhm. foofu lu wér ngay leer maanaam bu la nit sax liggéeyee da nga koy xam mën ngaa dem ba yoo xam ne déwén ngay def nangam da nga koy na noo am na noo ci xóotee respecté ko da dem ba nit ñi ñu lay ñu lay wax euh, euh, euh, ñu lay wax ne maanaam dañuy def da ngay dem ba ñu lay wax diwoo ngay def nangam waaw ah, am na yooyu dafa garaaw yooyu boobu ayati kursi yi ñetti yoon da nga xam ne ayati kursi yi boo ko jàngee da ngay aar képp ku nekk ak yow ci kër gi ak ku nekk taqaloo yow kër pour gént yu bon yi ah. waaw moom boo boo ko tëddee booy na nga gént ba ba bañee gént gént yu bon yi. waaw waaw nga jàng ko ñetti yoon ayatul kursi bi. waaw qul huwallaahu ahad ba mu jeex. Mhm. ñetti yoon. Mhm. qul a'uuzu bi rabbil falaq ñetti yoon. qul mhm. a'uuzu bi rabbin naas ñetti yoon. nga tafli ko tafli ko sa kanam nii. soo bëggee am réveil réveil baatin réveil baatin xam nga mooy lan. réveil baatin. waaw déedéet. <laughs> déedéet. taalibe yi ndongo je me rappelle mooy boo bëggee yeewu heure te doo am euh, euh, soxlawul réveil. waaw bàyyil ba suba nga woo ko bàyyil ba suba nga woo ko. yaa ngi dégg boo bëggee am heure rek tik tik nga yeewu mooy da nga jàng. isaa zulzilat al-ardu zilzaalahaa wa axrajat al-ardu asqaalaa wa qaala al-insaanu maa lahaa yawma izin tuhaddisu axbaarahaa bi anna rabbaka awhamaa quatre heures du matin fa nga yeewu. <laughs> ku nekk na ko essayé. kooku mooy réveil baatin nga taalibe yi ñàkk nga lislaam moo garaaw. moo tax si secret dafa garaaw ko xamul dara xamoo dara rek moo tax booy weddi dara rek naan nangam ak nangam ak nangam daa fekk nga man ma xam nga man nu may weddikat di neexee waaw sànq xam nga weddikat nu may neexee am na ko dugg ci commentaire mhm. maa ngi gis ki di commande naan ko amal yar bëgguma tudd turam ndax. non non non loolu waa ñu la parce que am na am na lu mu sànq euh, ba gars yi naan ko amal mooy li nga wax ci weddkat yi rek. non non non man waxuma ci weddkat yi étudiant ma. waaw hmm. négativité. Hmm. ku bëgg a dem ci kanam doo ko xool négativité. Hmm. loolu si il faut il faut nga pare psychologiquement. Hmm. pour nga am yenn réussité hmm. pour nga am yenn niveau yi. il faut nga am esprit de dépassement. esprit il faut nga am esprit de grandeur. il faut nga am xol dënn bu yaatu. boo gisee ñuy oote démocratie ñi koy oote xamuñu ko. yaa ngi dégg soo gisee ñuy oote naan euh, liberté. liberté d'expression. ñi koy oote xamuñu ko. soo amee benn niveau booy egg am nga esprit de dépassement da ngay am esprit de grandeur. xam nga li ma mooy waral nga àgg ci yenn niveau yi mooy waral nga xam leen lii mooy tax nga am leen li ki lay wax xam nga benn jour sama benn waaye dafa am lu mu gis ci man rek dama yow lii da ko war a génnee noonu yi gis ko ma ne ko malheureusement aw ma noonu mooy am ma kenn ku ne sama génn kanam ku may jàpp ne ku négatif la si sama kanam. waaw parce que man yàlla laay jëflante. Mm-hmm. donc situation bu mënta tegu si laa hawla wala quwwata illa billah ndax nit ki waaw amul kattan amul mën-mën daw damay dimbale waale nit ñi nga xam ne mhm. yu mel nii da leen di déstabiliser waaw da leen di yëngal donc waaw dinañ ci dellu si non dafa nag dama lay expliqué loolu dafa am solo question yi moo am nii te te comme mi waaw d'accord continue yaa ngi dégg donc nit soo bëggee am stabilité dangay mhm. nangu mhm. critique il faut ngay accepter critique c'est important dalay tax nga fàttaliku voilà waaw kii moom mooy laajte mu ne moom nan la def ba gañee papier walla liggéey ay papier daal ay papier walla ci wàllum liggéeyam comme mi ngi laaj secret comme dangay ngay maye secret rek muy muy laajte loolu moom voilà. kooku day sikar euh, bisimilahi rahmaani rahim 1947. 1947. astafurlah non bisimilahi rahmaani rahim 787. 787 suba ak ngoon. suba ak ngoon. waaw mooy mooy adatu maxrib mooy mooy nga xam ne. suba ga maanaam fa julli fajar bu jullee suba pare. suba waaw ak ngoon boo jullee suba. waaw ak boo jullee géeye. ak boo jullee géeye boo jullee géeye waaw. waaye non boo jullee suba bu ci gën a sa gaaw sax. waaw mooy boo jullee suba pare avant jant bi di génn. avant jant bi génn ak avant jant tàkkusaan boo jullee avant mm-hmm. jant bi di duggaat. Mm-hmm. yaa ngi dégg. waaw avant jant bi di duggaat. waaw ñaar yooyu moom mooy heure euh, euh, euh, sikar bi. d'accord mooy mooy bismillahi rahmaani rahim. 787 mm-hmm. fois. 787 fois pour yow mi bëgg a. liggéey wala papier papier waaw. papier wala liggéey même ku bëgg tukki nii. ku bëgg tukki. am na benn secret bu garaaw. bu gaaw xam nga la waaw dinañ ci dellu si 7797 bisimilah rahmaani rahim. 7797. bisimilah rahmaani rahim pour ku bëgg tukki. nga bëgg xaalis ak ku bëgg xaalis ak ku bëgg def kéemtaan. kéemtaan. bëgg def kéemtaan tey tey tey hmm. loolu moom sama mbokk sëriñ si laa koy baaxee. Hmm. tey nga nekk sëriñ dem ci benn dëkk rek bëgg fa wane kéemaan gis fa fa feebar rek. Hmm. nga bëgg ko kii yooyu da koy bind. garder ko yóbbaale ko foo mën tukki. da jël sept mille sept cent quatre-vingt-dix-sept bismillahi rahmaani rahim. d'accord soo bëggee am xaalis moom sangoo ko da nga am xaalis nu mu gën a gaawee. waaye pour soo bëggee am këyit da nga koy bind pour papier ak liggéey. waaw da nga koy bind. da boo koy léegi yow. ma ma répéter bu fekk yow mi bëgg liggéey wala papier wala bu fekkee ñaar yëpp bu fekkente ne da nga koy bind mu ne sept mille sept cent quatre-vingt-sept fois sept sept sept sept sept mille sept cent quatre-vingt-sept fois moom ngay bind moom ngay bind bismillaahi rahmaani rahiim ba mu jeex bismillaahi rahmaani rahiim waxuma alhamdulillaahi rabbil aalamiin waxut faatiya de basmala basmala basmala bismillaahi rahmaani rahiim voilà bu fekkente ne da nga koy wér de mu ne sept cent quatre-vingt-sept fois 787 fois suba ak ngoon balaa jant bi ci génn balaa jant biy génn ak balaa jant bi dugg ak balaa jant biy dugg takkusaan bi moom bu ñu juree takkusaan ak balaa jant bi dugg waaw kii nee na moom mi ngi confirmé ci li nga wax léegi ci isa zulzulati bi mm. nee na mi ngi ciy nee na mi ngi koy confirmé <laughs> waaye nee nee na mi ngi laajte nga répété li ngay wax li ngay tari bala ngaa tëdd mooy isa zulzulati lardu ardu zil salaha zil salaha waa axrajatil ard hmm. asqaalaha hmm. wa qaala al insaanu hmm. maa lahaa yawma isin tuhaddisu axbaaraha bi anna rabbaka aw xaalaha xam nga ma coola tof wala aw xeelaha waaye danga naan aw yeema quatre heures du matin mooy réveil presque bi moom bu quatre jotee dañuy rocc say naro teg ne force da nga jóg ñooñu nga xam ne sax dañu bëgg yeewu ñu naan ay défi mënumaa neel sama yeewu tëddaat non dañ koy rocc teg na loolu la mooy secret réveil. d'accord moo tax sëriñ su bari doo gis ñu ut ay réveil yooyu loolu la. Mhm. secret secret réveil la boo bëggee nelaw boo bëggee yeew wala nga bëgg tukki wala nga bëgg a bañ a rate rendez-vous. Mhm. des euh, bi sonné. Mhm. saytaane bi la jàpp bés la. ba nga xam ne yow doo mën a yeew ñu xañ la sa liggéey boobu. xam nga des fois nga ab rendez-vous nga yeew biddanti. waaw loolu moo koy mooy. waa kii nee na moom lu lépp lu mu bëgg def rek dafay dëgër lépp lu mu bëgg def munum dafay dëgër. dafa am gàllankoor. lan li ñu ci wax nii yëpp moom pour gàllankoor yi la li ñu wax li ñu ci wax yëpp dégg na ko lu ne ko jëfandikoo waaw mun na nga jëfandikoo lépp lu ñu fa wax rek jëfandikoo pour yooyu la pour gàllankoor yi dëgër yi istifaar bi salaatu fati bi euh, euh, euh, basmala bi bind ko sangu bi kii bi xobu ñàmb bi ak xobi laurier yi yëpp pour loolu la mhm. waaw waaw noonu kii moom nee na daanaka otom daal choc da ko yomb moom nee na mbëkk da ko yomb mbëkk moom moom nee mbëkk da ko yomb sama oto choc daf ma yomb maanaam mbëkk doomu wolo moom nee mbëkk da ko yomb daal doomu wolo doomu wolo mooy lan doomu <laughs> ah, ah, <laughs> mu xam luy doomu wolo wala moom na wax doomu wolo na dem ci bu laalul suuf doomu wolo bu laalul suuf waaw lay jël def ko ci biir oto bi doo accident du mbëkk def dara mu def ko ci biir daf la yomb mu ne nga dem ci marché bi nga laajte doomu wolo nga def ko ci biir oto bi mun a doom doom wolo bu laalagut suuf léegi loolu sax neexee sëriñ waaw yi nga xam ne dañuy jóg rek làmba làmbaatu dinaan dañuy faj waaw ma leen laaj plante yi waaw plante nàngam mooy lan wala ñu yóbbu leen ci àll bi ñu leen plante nàngam lañ ko danañ ñëw ba ci plante laaj leen ko tax duñ xam plante bi lan la d'accord ba tax lii dafa am solo dafa am solo d'accord kii waaw borom borom borom borom sept borom 787 yi mënu ndax day def sept quatre-vingt sept cent wala mën a mën a yëpp benn la rek yéene bi moo ci am njëriñ waaw boo xëccee booy xëccee booy yàq ak moo ci la ci boo xëccee boo hmm. daxoo jàll bi waaw kii moom nee na te sept cent quatre-vingt-sept waaw cent kii de maanaam paaka ñaar double tranche la de tranche couteau la waaw ah, loolu ñu dégg ñaar koy xam couteau double tranche mooy mënee na nii mënee na na ñaari boor yëpp voilà kii moom nee na moom nee na dafay gis euh, jinnam ah li doy na waar de. dëgg la doy na ah waaw moom nee na dama koy gis jaxaran mhm. nee na damay gis sama jinne jaxaran dëgg la am na waaw moom nee na lu ciy pexe lay laaj. ndax am naa xam ne boo ko suuree ci benn jour bi la lay bàyyi. yow dafa am dafa am ay. waaw kii moom nee na damay gis sama jinne jaxaran am na benn mbokk ab lay waaw président de ko jege. maire bu dëkk ak man Cité Fadia ba ma fa nekkee ba may dëkk si Fadia xam nga toxu naa Cité Fadia maa ngi ah. eh, indi na ko ba sama kër. sama hmm. yaay la moo nekk sama yaay ginnaaw eh, si fële eh, Cité hmm. ku ma xam Cité Fadia xam nga sama yaay si Fadia. Hmm. moo ko indi sama kër. yaa ngi dégg. moo ko indi sama kër. mu ne ma man sama jinne bi ma nekkee jànq ba léegi dama koy gis su ma ranger samay yére daf koy waddalaat ba mu set. su ma tëddee mu tëdd ci sama wet daf may laal ma koy laal xam naa ko dama koy gis. jinneem ci boobu jinne bi ci boobu ma ne ko sama cuuraay bii may jaay mooy cuuraayu lii lumu bi. Hmm, yaa ngi dëgg boobu man naa koy jaay parce que moom moo laal parce que jinne la laal. Hmm. maa ngi jégalu nag ci publicité parce que du yoon. Hmm. ndax lii defuñ ko pour ay affaire intérêt dañ ko def wàcc xilaaxil kërim mais pour baax pour baaxee ko moom moo tax. yaa ngi dégg ma ne ko su ko soo ko suuree tey tey. tey tey la lay bàyyi mu ne ma sama doom foo xalaati ko suuf dem naa fa ñàkk fa alal ngir lii. jinne bi mu ngir jinne bi ma dafa essayé ko. waaw kii moom yaa ngi defal publicité waaye xaaral xaaral xaaral ma génnee la parce que nit ñi ni ñuy gisee dafa doy war ndax da ñëwoon tey pour wax ci loolu rek waaw man damay def ngir yàlla comme neex toogal comme naqari demal. jeex na amul gisee de parce que joxe fii yëpp rek loolu moo. xanaa ku may fukk ñu may la benn. wax dëgg yàlla xanaa kii moo gis am na asaka. na kii yàlla ci boppam sax dalay may la jox ma na <laughs> kii moom nee na. Eh, moom bàyyi moom nee lan lan mooy dindi palpitation. da ngay naturel xam nga bu ragal gis nga lii nii da lay gaare da lay da lay traité. waaw négativité. Hmm. soo bëggee avancer doo ko gëm. Hmm. est-ce que xam nga le positif et le négatif. ça n'existe plus. yàlla mooy ci exister yàlla moo am. yàlla moo yor affaire yi gis nga lu baax yàlla la lu bon moom la dañ la ko yëfi nga génn ci. laa hawla wala quwwata illa billah hmm. bul xool ku kontaan bul xool ku mer xoolal meram yàlla ak mbégam ya mbégam yàlla. Mhm. point. d'accord loolu la rek. waaw ku neex toogal ku naqari bàyyi dem. sa boo demee sa morom ñëw ndax ku la gën a bëgg lu baax a fi toog. def ngir yàlla la. kii moom nee na lan mooy dindi palpitation maanaam fit bi dafay rëfër fii rek lan moo koy dindi. hémorroïde bu métti interne dafay waral fit buy tëf tëf cat daf koy waral ak rab wala ñu lay liggéey te baawuñu la ñu lay liggéey te ki lay liggéey dafa yor kurus di liggéey kurus gi day waral loolu daf koy def loolu mën la ko wax. maanaam cat. waaw cat daf koy def. ak hémorroïde interne bu wérul bu fajul day waral fit bi fët fëti. waaw ak toog bi bi leen kurus sa fit day tëf tëf tëf kooku moom loo koy conseil la xam naa dafa ah, laajte lu koy def. waaw hémorroïde dam dam na bu dee moom la. cat la li ma fi wax ci wàllu ko ko ñaanal. jeex na pour mu dem mu ñaan mu dimbale ko ci côté boobu. jeex na Ah, amin yara bi mi ngi lay ñaanal amin yara bi donc kii nee na soxnam day laaj nan lay def ba nu muy def ba julli nu muy nu muy dafa bëgg di julli nu muy def xam naa ne kuy faat waxtu la na faju rab waaw rab ko jàpp rab ko jàpp yéeféer la moo tax bu julli mu bëggee julli mu tayal loo ko wala mu disal yaram wala mu fàttale ko loolu seytaane la na mu bëri di ci ay mu jàng ayatul kursi yi nay jàng ayatul kursi yu kon kon yow mi di laajte naan sa soxna dafa day laajte nu muy def bay julli mun nay jàng ayatul kursi yu su ko mënta jàng moom moom ku jàng ko juróom-ñaari yoon ëf ko ci mu koy naan yow sa soxna ba ko mënta jàng ayatul kursi yu yow muy boroom këram jàng ko juróom-ñaari yoon nga ëf ko ci ndox jox ko sa soxna mu naan waxtu julli yëpp nag julli yëpp nag dee ko def bu fekkee fekk na ci benn barab waaw léegi mu ne kii nee na lan mooy dindi loo xam ne dara du taxaw sa loxo moom daal lu mu am mu dem lan moo koy dindi. loolu loo koy baaxee. lu ma koy baaxee pour loolu la <laughs> gars yi bëri di jàmbat. <laughs> loo moom mu dem loo koy baaxee. loo loo yor mu dem euh, li ma wax léegi dafay dindi. Mhm. Euh, mooy kii bi. Mhm. jalambaan bi. jalambaan. waaw waaw pëndaxu jalambaan pëndaxu jalambaan bi nga fi waxoon. da koy dindi waaw. xobu laurier di ko suusoo sa loxo yi da koy dindi. xobu laurier laurier moom yomb na wax dëgg yàlla moom. moom soxna si xam naa xam dugg wàññi. waaw da koy dindi xobu laurier nga suuf ko suuf ak ak ak kii nu mu tuddati euh, euh, euh, mooy fuuf bi xob sungu fuuf. sungu ak ak ak ak sungufu ak sungufu jalambaan. waaw nga suuf ko sa loxo nga suuf suuf sa loxo yi ak xobu laurier. xobu laurier moom yomb na la. da koy day dindi loo yor mu dem. loo yor mu dem ñi nga xam ne lu ñu yore mu dem xobu laurier sungufu jalambaan sungufu fuuf fuuf fuuf damal nga laajte loolu nga nga di ko kii nga di ko suuroo. suur sa yi nga koy suur sa loxo yi ah loxo yi la koy suur. mais am na bu gaaw fàtte naa ko. waaw mooy doomu ngi gis. doomu ngi gis. ci joni joni la yéen joni joni la. kon mi ngi noonu. bàyyi la sa xob yooyu yëpp boobu baax na yooyu yëpp baax na mais fàtte naa bi moo gën a gaaw. neen loolu la baax na doomu ngi gis neen demal demal nga laajte doomu ngi gis doomu ngi gis ci marché bi dama nga jënd ko da ngay jënd doomu ngi gis nga dëbb ko def ndax nit mën naa defal boppam listixaar waaw moom moo gën moom moo ci moom moo ci jaadu ci sunna looloo ñëw istixaar kenn war ko defal kenn istixaar istixaar kenn war ko defal kenn ci yoon moom mën naa defal boppam istixaar moo jaadu loolu mooy yoon tële gi nit ñi tële moo waral ñuy kii ñun lañ koy defar waaye xam nga nit lu mu mënta defal boppam mën nañ ko ko defal. Mhm. lu dul ay euh, kii li nga xam ne ay farba ay ni mhm. mais istixaara moom di ci jaadu ci sunna mooy nga defal ko sa bopp mooy nga julli ñaari rakaa. Mhm. ah. ngay yàlla nangam bëgg naa cee def yàlla tànnal ma. loolu mooy istixaara amul leneen lu leneen tuuti ci ay cinéma la. nee na kon nan la koy defee ndax ñaari question wax waaw nu koy defee mooy ñaari rakaa boo julli ñaari rakaa nga jàng ca Fatiha xul auzu bi rabbil falaq wala Fatiha xul yaa ayyuhal kaafiruun Fatiha xul huwa laahu. répété waatal. Fatiha xul xul yaa ayyuhal kaafiruun. nga nga déglu baax yow yow yow mii Fatiha benn yoon xul yaa ayyuhal kaafiruun mu def ko eh, eh, eh, benn yoon. léegi su ñaari rakaa bi mu daan fàttee xul huwa laahu ahad ñaan yàlla maa ngi bëgg a jublu ci nàngam yow yàlla tànnal ma su la ci yàlla xiiree tànnal na la su la ci xiiratul tànnal na la jeex na loolu mooy istixaara mais amul leneen. boo comprendre euh, bu subaa nga woote téléphone amul leneen nag ñu lay wan lii wala ñu lay wan laa ñu ne loolu yooyu yeneen mbir la. Hmm. yooyu jëfandikoo kaay yi borom xam-xam yi la te yàlla moo xamal doomu aadama wa allama aadama asmaa kullaha hmm. yàlla xamal na doomu aadama lépp. Hmm. waaye istixaara bi nga xam ne moom la sunna indi yonent indi ko mooy lii. d' accord euh, waaw macha allah. waaw da ngay dangay woote téléphone rek boo woote téléphone rek insha allah rabbi dinañ la kii waaw moom nee na bayre ñi ci ñi ci messenger bi ñi may ma tuuti ñi baal ma moom nee na bayre la soxla moom bayre bayre euh, laa soxla damay am ay xarit à un moment donné ñoom ñu changé d'avis yaa ngi ko doon wax keroog sa benn émission am ñoo xam ne ñu toog toog mbooloo min amoon dootuñ gis mbooloo moomu mm. luy waral loolu moom nee na nga baaxee ko secret boo xam ne wala loo xam dina def pour bayre pour nit ñi di ko dikkal. waaw dafa am ci al al wadoodu da koy maye. al wadoodu. day maye bayre. day maye bayre. waaw nga bind ko juróom-ñaar fukki yoon. waaw micro a sori nag pour nga yëkkati kàddu ko baaxee jàmm. bayre dafa garaaw de sa <laughs> <laughs> tuuti rek kii la. bayre dafa garaaw parce que bayre al mhm. da ngay da nga koy bind soixante-dix fois boo ko mënee. Mhm. dafay dafa lay jox euh, dafay maye bayre. te tamit bokk na ci liy maye bayre mm-hmm. ah mm-hmm. mooy saa amee mën a am xubbitu niñ ki nànk xobbitu niñ ki nànk waaw xobbitu niñ ki nànk nga boole ko ndoxu géej nga sangoo ko benn gën a koo gaaw ci bayre xobbitu niñ boole ko ndoxu géej mu sangoo ko waaw boo fekkee yow miy laajte bayre xobatu ninki nànk nag yombut jaaykat yi waaw léegi amul yi ñoo koy am waaw bu mu tam xobatu ninki nànk jox ko beneen pour pour bayre bi non man xam nga man li may utiliser te di ko dimbali jaam yàlla te mu baax laay wax rek. waaw kon bëri naa leen. baax nañu lool waaye yi gën a baax laay wax. te licence la ku ko jot rek téye ko même ñuy jafe joxe ay ñaan sax mën nañu ko jëfandikoo di jox seen ay nit. voilà di dimbale. da ngay d' accord nga na nee boole xobitu nink nànk nga def ko ci ndoxu géej nga sangoo ko nga boole ko ndoxu géej nga sangoo ko. nga allah. soo ko suudooyee nag di am bay la waaye da nga bëri fitna tamit boo ko suurooyee. waaw waaw da nga am bay rek da nga am coow bay dana waaye sangu bay gën. a set quoi. kon xobitu niñ ko bu fekkee da koo suuroo di am bay rek am coow waaye sangu bi moo gën a sedd. waaw waaw naa ko tuddee sedd sangu bay gën a sedd. waaw kon kon nga sangoo ko bu sangu bi la attan sax bu dee góor moom mën na jël tuuru bi. waaw bu dee jigéen waa jigéen la yaakaar naa xaaral ma yéegaat tuuti jigéen la waaw donc euh, ñu ngi ñëwaat ñu dellu tuuti ci messenger bi moom nee na dafay laajte jigéen ju mu nekk ak ba yóbbu eh, ba dem ba yóbbu may rek mu du ànd moom daal nee na ku dem ba war a takk soxna rek du ànd. loolu rab moo koy def. waaw ñaar na ko def rab na ko def liggéey na ko def yooyu moom foo mu ñëw kër ga. waaw foo mu waaw yow moom soo paree nga xam naa ñëw kër ga bëriwu fi pour l'instant ñu ngi fi woo kër ga bëree guddi. <laughs> donc yoo xam ne soo ko naree xam nga man sama hmm. diggante yàlla laay seet. waaw fa nga wax nit ki li ngay defal nit ñi wala li ngay defal sa bopp. xam nga loolu ngay wax te te am na yoo détails yi ci bëri ci biir waaw Élysée présentement je ne crois pas que que l'on puisse faire l'émission en français je ne crois pas on va faire en sorte que la prochaine non, fois en français, je, sais que vous pouvez vous débrouiller et nous allons faire en sorte que la prochaine fois y a même certaines de ces émissions qui sont disponibles sur YouTube donc vous allez là-bas vous tapez Cheikh Omar Diop il y a la traduction automatique euh, générée par YouTube vous verrez toutes ces émissions en français donc on va faire en sorte que la prochaine fois de nous exprimer en français ah, euh, guy gi quoi français guy gi. voilà mais <laughs> français guy gi ngay bañ. français guy gi xam nga guy gi am na. français guy gi. mos nañu maa jàngal français bi may jàngal français nag. bi may jàngal français. <laughs> waaw ma jàngal. xam moom bu jàng tubaab dafay yomb. waaw. mais hmm. eh, alhamdulilah man léegi français. d' accord sans problème. waaw ah kii nee na connexion moo dawul déggut ba ngay déggut déggut bi ngay tontu ci soxna mu muy def ba julli nee na soo bëggee sa soxna julli na jàng ayatul kursi wu. déedéet sa soxna si mooy jàng ay soxnaam si mooy jàng ayatul kursi bu fekkee mokkal na ko. waa su ko soxna si mokkalul moom ku góor ki bu ko mokkalee boo koy jàng juróom-ñaari yoon. Mm-hmm. Hmm? waaw di ko ëf ci ndox di ko ko jox mu ko koy naan mu koy naan ci waxtu julli yi. répété waatal ma tontu kii ci numéro bi. waaw moom loolu laa wax ki nga xam ne moom moo am problème mu julli. Mhm. xam nga ayatu kursi day dàq rab. Mhm. su koy jàng day dàq rab bi nekk ci soxnaan su koy jàng day dàq rabam. Mhm. Hmm? nga xam ne dana ko bàyyiwoon julli. wa illaa moom ku jëkkër mu koy jàng juróom-ñaari yoon ci ndox jox ko ci soxna soxna si mu leer na waxtu julli yëpp nag. leer na da ngay sa soxna na jàng ayatul kursi bu ko mënut yow nga koy jàng di ko ëffal ci ndox di ko jox mooy naan. juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon lay nekk. waaw waaw ñu ngi jégalu de ñu ngi jégalu baax a baax a baax a baax. nga ku yendoo toog ba ngoon nga wëkkati ko ñu toogal encore. waaw ñu ngi jégalu ñu ngi jégalu baax kii nee na moom dafay laajte nee dafay laajte moom daanaka bor daal moo ko sonal te yor na xaalis ci messenger bi. nee na man borom alal la maa ngi sant yàlla waaye bor moo may sonal. waaw. Euh, waaw am na secret yoo xam ne boo ko sangoo da ngay teqali ko bor loolu am na. waaw foofu ñu foofu ñu moom nee na mi ngi sant yàlla am na alal. waaye bor moo ko sonal loolu nu mu mënoo. parce que mbind mi dafa bëri. mbind nekk dañ koy jox mu sangoo ko day dëj. Hmm. Hmm. même boo accord accord question yi bëri na wax dëgg yàlla yonent bi question yi bëri na buñ ko toppee. xam naa tontu tey bésu maye la tontu loo mën si laa si suñu. yaa ma ñaan naa may thème. waaw waaye nag question yi question yi yaakaar naa am na ñoo xam ne sax tontu ma leen. les horaires de cette émission nee na horaire émission bi laaj émission yi ñu ngi koy def Euh, heure bi à partir de dix neuf heures quarante cinq vingt heures quarante cinq lañ koy def donc euh, nga koj ko quoi voilà tous les mardis tous les mardis. Hmm? voilà dina dem dina def parfois ay direct nag mais émission bi moom tous les mardis lañ koy def à partir de dix neuf heures quarante cinq dix huit heures ba illa axiri fu mu yem donc waaw kon ñu continuer laaj bi moom nee na moom nee na boroom këram ak moom. mënun daal ci messenger neen daal daanaka mënun mënun séq daal boroom kër da koy wax na carrément na man am naa cofeel ci yow te moom mi ngi koy mi ngi koy seddal loolu waaye nee na mënun séq daal néegu sëy nee na moom borom kër mënun séq néegu sëy waaw xam nga dafa mooy waxoon naa ko kër hmm. mooy laurier bi hmm. da koy suur ci néegam rek bu ko suuree ci néegam dinañ am jàmm ñoom ñaar xobu laurier lay jël baxaw lay jël euh, euh, kii ko lay jël euh, ak xobu ñaam bi nee na maa ngi see sama borom kër seedeel na ma ne am na cofeel ci man te man it am naa cofeel ci moom. moom ñàkk sëy bi lan dañ dul ànd ak sëy ci rapport. dañ dul ànd voilà loolu la bëgg wax loolu la bëgg wax. jëkkër ji dafa tëlee wala tëliwul. Ah. dafa na ko xam fekkee jëkkër ji dafa tëlee day ñëw def traitement ma faj ko. waaw su fekkee ne jëkkër tëliwul mu ngi am mu ngi normal. Mm. tëliwul. waaw moom jabar ji amul problème feebar lu seytaane ma dox seen diggante wala dañu leen liggéey. waaw su dee liggéey la dañ dindi liggéey waaw su dul liggéey nag moom na jël xobu laurier. xobu laurier mu mu mu boole ko ak xobu ñaan bi mu suur ko si seen biir nekk day am jàmm day dañ. bu la ci seen biir bu dee rab seen biir day dañ. d' accord xobu laurier. ngay suuroo ak xobu ñam bi da koy xobu ñam bi ngay boole suuroo ko seen biir néegu sëy. voilà seen biir déedéet seen biir néeg. seen biir néeg. waa seen biir néeg ngeen koy suuroo. voilà yow mi ngi am gàllankoor sa diggante sa borom sa sa jëkkër. waaw kii. garabu cat moom nee na garabu cat lay laajte moom. xobu ñaam bi lay sangoo. xobu ñam bi ngay sangoo. xobu ñaam bi da koy koy dëbb xobu ñaam bu tooy lay jël dëbb ko. Mhm. xobu ñam bu tooy ngay dëbb. boo paree loo am boo ko waxee mu yàqu. waaw da ngay jël tànk nga dëpp ko ci suuf. waaw oy testé <laughs> loolu dafa garaaw de. waaw est ce que doo est ce que doo nii sama tànk nii. waaw nga dëpp dëpp teg ko ci suuf ni dëpp ko ci suuf. waaw nga oy oy baaraam yi. waaw oy testé ni. ñaari tànk yi. jël loxo yi rëpp ko ci suuf. waaw ah. ooy cati baaraam yi ooy tëste nii. waaw ko ci ndox. waaw da ngay def doucement defaatal geste bi ñoom ñu gis comme da ngay may. tànk bi nii pour lan la d' pour pour bu fekkee ne da ngay da ngay loo loo am rek boo ko tuddee mu yàqu. waa pour mu deñ ñoo ñoo xam ne luñ tudd mu yàqu. am seen alal ñoom am ñoo ne bu ñu amee seen alal luñ ko buñ ko tuddee rek mu yàqu. wala sax suba sax maa ngi defee lii. duñ duñ ko def. voilà mu am gàllankoor dugg ci. waaw da waa ndànk rek sa loxo doucement waaw. sa catu baaraam yi nii. waaw ngay oy. oy ci lan bi. yaa da ngay teg sa tànk bi nii. waaw nga teg sa tànk nii. waaw bi boo ko tegee ci suuf ba marqué fi baaraam yi marqué. waaw baaraam yi rek ngay seppi ngay tibb. moom ngay tëstan. tëstan waaw yaa ngi dégg mooy lii waaw moom mooy ñaari baaraam yi ak ñaari tànk boo ko rëppalee da koy dajalee ba mu dajaloo nga rëpp ko mu nii ba mu rëpp ba mu dëgg nga teggi benn teg ne teggi benn teg ne mhm. nga oy ñaari baaraam yi mhm. <coughs> tànk baaraam yi tànk yëpp nga oy tànk yi nga oy oy oy tibb ko mhm. si suuf tëstani tamit nga tibbaat tëstani tànk yi nga ña tibb ko hmm? boole jël ñaari loxo yi rëpp ko ci suuf tibb baaraam yi tibb tëstan bi ah tës tëstani loxo yi. Hmm. comme loxo yi xam nga baalaam yi loxo yi mooy lii nga tibb cat bi nii. Hmm. baala euh, tëstani mooy lii. Hmm. ci tëstani nga tibb ko. nga bàyyi digg bi. nga sotti ko ci ndox. nga sangoo ko. nga sangoo ko waaw daanaka mooy li mu jot a wax nii. bu fekkee yaa ngi doon seetaan sànq mooy li mu wax nii loo koo xam ne lu mu yaakaar mu tas mooy li muy expliqué nii rek. mu tudd mu koo xam ne lu mu tudd mu yàqu kon kii beneen moom nee na koo mu yaakaar mu tas moom. waaw kooku bu fekkee ne loo yaakaar day deñ da ngay saraxee euh, euh, kii tàndarma da ngay saraxe tàndarma. kilo kilo tàndarma. nga dem ci jumaa ji suba teel. waaw mag ñi jullee suba teel bay génn si nga dajeeg ñoom safaanoo ñoom bu ñuy génn yow ngay dugg nga seet mag mu bejjaaw nga jox ko yàlla maa ngi la ñaan sama yaakaar tas yi ko jox taakaar tas foofu lay jeexee. waaw nga nga nga bamtuwaat ko. koo xam ne lu mu yaakaar mu tas eh, yow sama tey maa bëgg yëngal de. waaw déet ba <laughs> déet pour pour jàmm ñi la. Ah. pour jàmm ñi la nit ñi dañuy toog seen kër waaw waaw répétel que boobu rek mu jeex répétel que ah, boobu rek xam ne fa sori waaw répétel que moom neen lu mu yaakaar mu tas yaakaar mu tas loolu koy dindi tàndarma ngay jënd kilo kilo tàndarma ngay jënd fajar waaw suba teel bu ñu ñuy jullee ba pare fajar bu ñuy génn nga daje paa yi ci biir jumaa ñoom ñoom bu ñuy génn yow ngay dugg mhm. bu ñuy génn ngay dugg waaw yow boo mënee gaaw pare profito mhm. julli ak mhm. ñoom gaaw génn ci biti taxaw soo gisee paa yi di génn rek nga safaanu ñoom dugg ci biir jàkk ñoom ñu dugg ñoom ñuy génn yow ngay dugg mhm. léegi su ko defee nga jox kenn benn mag ba jaaw koo xam ne mag la nga jox ko tàndarma bi fekk balaa nga koy jox tàndarma bi yéene nga ci maa ngi ñaan yàlla mhm. yàlla dindi ko mhm. nga sarax nga jox jox paa bi tàndarma bi paa bi génn yow dugg ci jàkk ji ba paa bi jàng nga soog génn dem d'accord loolu mooy dindi yaakaar bu tas ci loolu amul sax xaar waaw kon kon kon kon kon ñu ngi jéggalu di ji di leen wax ne. mardi bu jot mais doy na waaw question dafa bari sax xam naa ne damay damay répertorier question yëpp waaw waaw léegi question dinañ ko répertorier di leen posé waat ci yeneen question yi des ku ci question yi tam mën nga koo posé. waaw beneen beneen émission bi nga posé waat ko ndax mardi bu jot à partir de 19h45 wala 20 des na ci moom. di leen ko def incha allah rabbi ba jamono juñ arrêté rek. ñun amul ay une heure temps amul ay deux heures temps amul ay quarante cinq minutes. non non dañuy wax ba doy rek. dañuy wax ba doy rek bàyyi. parce que ak pour si pour yéen. waaw que man sama man yéen nit ñi man man nit nit ñi ne ci jàmm ak. am jàmm mooy sama soxla. Hmm, hmm. voilà man loolu mooy sama soxla quoi. j'en ai vraiment besoin waaw dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëwaat incha allah rabbi dinañ ci ñëwaat sopp wala wala wala nga woote rek directement incha allah rabbi chaque mardi mardi bi ñu ngi leen jox rendez vous mardi di ñëw incha allah bi à partir de 19h45 mardi bi ñëw à partir de 19h45. non non 19h45. mardi waxtu wi rek parce que boo nee 19h45 bu tegee benn minute da ngay waaw wax nga dëgg de. te xam nga ñun comme programme bi ñu yore programme yi. ñu bëri dañuy soxla des fois nga ñëw 19h45 sax nga am mm. benn nit bu feebar ñu mm. oola. Mm. da nga ko fay teg dem dimbale ji ko te yàlla tax. donc mardi waxtu wii. mardi waxtu wii kon. kon mardi mardi waxtu wii mardi ñu xam ne à partir de 19h ba waxtu wii. Mm-hmm. ku fi ñëw di ñu fekk. ku làmb daaj ñu rek xam ne ña nga fa. d'accord parce que lii du. sign signature du contrat. Mm-hmm. ñoo koy def si suñ baaxu bopp. Mm-hmm. bu ñu neexee mardi jot sax ñu ne bañ koo def. d'accord waaye nañ ko nañ ko jàpp ci waxtu wi rek moo gën a neex. d'accord incha allah bi kon ñuy bàyyi la nga ñaana ñaanal leen nga def leen nga may leen benn ñaan ñaan pour wërsëg alal ak yëpp. waaw li may dénkaane pour ñaan pour am alal boo ko bëggee. xam nga wax waroon nañoo waxtaan ci euh, nit ku am alal. nu mu koy gérer ba du ñàkkati. loolu xëy na waxtaan wi di ñëw incha allah danañ ko ci def. nga xam ne tey mën nga déparé cent franc wala wala non astafurlah euh, parce que waxtu wi nii xam naa jamono bi moom bu bu kii ba kii ku am cinquante mille normalement wala cent mille franc. par par jour di nga mën a dem ba nekk millionnaire. Mm. loolu dinañ ko mën a waxtaan après incha allah. Mm. donc maa ngi leen di dénk ngeen di taqoo istixfaar ak salaatu fatiha mooy salaatu ala nabi mooy salaatu fatiha. di ko jàng astaghfirullah astaghfirullah mm. di ko jàng 1947. 1947 fois astaghfirullah waaw. waaw di ko jàng. day may xaalis. Mm-hmm. en temps euh, li nga xam ne mooy wàllu salaatu fatiha xaalis pour am problème bu daar daar nga faj ko salaatu fatiha juróom fukki yoon. d' accord nañ koy saxoo. Mhm. Ah, tey yéen nit ñi jàmm. bu mhm. ko defee yàlla dana leen wërsëga. Mhm. nangoo liggéey di nga am xaalis di am jàmm. loolu laa leen di wax di leen ñaanal di leen gërëm di leen sant. di ñaan yàlla jàmm ci réew mi. di ñaan jàmm ci Sénégal di ñaan jàmm ñaan yàlla jàmm. ci ñooñ Sénégal. wërsëgu yàlla wërsëgal Sénégal doomu Sénégal yi muurloo ko. yàlla tënk tubaab yi tënk occidentaux yi ba buñ ñu nax buñ nax suñu état yi. jël suñu alal. yàlla mën na ko am na ko yàlla nañu ko yàlla defal ñu ngi ñaan yàlla jàmm ci réew mi mm. di ñaan yàlla jàmm ci doomi Sénégal yi nekk ci bitim réew di ñaanal fépp fu jullit di ko ñaanal jàmm mm. di ñaanal eh, eh, eh, suñu réew yàlla na fi yàlla saxal jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla saxal jàmm mm. Sénégal yàlla na fi yàlla saxal jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla saxal jàmm ci barke yonent yàlla Muhammad ma salik ala llahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen mbokk seen xarit Cheikh Omar Diop moo doon waxtaan ak yéen di fàttalante ak yéen jërë ngeen jëf